I am stand with the devil. Action Bäverdanei, Action Stringunei, Action Stringubai, Action Bäverdabai, Action Silverbai, Operation Rebu Double Style, Operation Rebu Double Style. population rëbëndëm de la république yeewu leen yeewu leen wuup wuup Sénégal yeewu leen opération rëbëndëm de la république is back opération de la république rëbëndëm style tous les samedis yes asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa diwo saafo rayo nemaliko nokkoos di rokkoos ah yegsi nañ nag ci biir brigade buub puub yulli wulli tulli le suqi et le muqi muy émission boo xam ni mu ngi yëngal jamono di taal town bi di boyal town bi aduna bi yépp di ci wax góor jigéen mag ndaw muy émission boo xam ni moom mooy rajaxi république bi ndax ci la ñuy Sénégal yëpp di gis maanaam seen sili bu yi ñuy weer seen stringu ndax yi ñuy weer ak seeni i euh, cuucu yi nga xam ni ne moom la ñuy xandal di ko wëndaaloo di sàcc suñu xaalis di dem ànd ak caga ji donc alhamdulilah euh, émission bi moom day continuer ba deux mille vingt quatre voilà dîne, que je dëmm safata wax magum jëm ñun amuñu lu expliquer ben doomu aadama ci mission lañ nek, dañuy ravager rajaxe jëm kanam ravager rajaxe jëm kanam leen niveau de violence que nga ni ñi nga ni dëmm dañ leen di wantit leen ak seen stringu nday yi gis niveau de violence bu ñu def ci famille bi pour montrer que affaire bi mi ngi dugg bu baax mi ngi saf ci ñoom bu baax a baax a baax mi ngi bu donc dañ koy continuer ba 2024 jox focus 2024, mille kenn lenn mënul téé mola morgan bu 2024 deug kenn lenn yàlla sàkkagu ko mu mun a mola morgan bu 2024 la la jox rendez-vous te man sama rendez-vous day mat seuk dama ne duma ma duma gañu dara duma jot ba 2024 fi lay tok fii laay di ko nokkos di leen ko rokos ba 2024 inshallah yalla quatre moko mun kese donc préparez vous len guys teel a Saturday Saturday night Saturday night Saturday night. Come on, tell us Saturday, Saturday night. Oh, Saturday night, eh, Saturday night. Come on, tell us Saturday, Saturday night, eh, Saturday night, Saturday night. Come on, tell us Saturday, Saturday night, eh, Saturday night, what, Saturday night. Yuli, Uli, Tuli. Urang, Wang, Urang, Wang, Urang, Wang, oh, Urang, Wang, Urang, Wang, Urang, Wang, Urang, Wang. uang ah urang uang urang uang eh urang uang eh urang uang eh urang uang urang uang urang uang urang uang ah urang uang tey la de na le urang uang in the place to be bu demee ba ci biir sa affaire bi tàng mun naa leen raje xel benn audio aji saar donc il se peut affaire bi daal bu jaxee ba jax jax jax rek ma dugal benn audio aji saar

wang wurang wang wurang wang wurang wang wurang wang wurang wang wurang wang wurang wang wurang wang wurang wurang wang boobu mooy daanu bi donc seen république seen bandi salté yi dëkkee wurang wang ñooñu la ñuy ñëw wili pande ak bépp jigéen bu ñu wurang wang di nga génn ci wurang wang te dara ñu ko téré wax dara ñu téye dara ñu arrêté inshallah kon nak gaay ay ca ñu ñu ñu safal gaming hmm waaw ok oh ka yee ba ba ba. lowrang wang in the place to be lowrang wang in the place to be senegalais na nga def mbaay nañ ci jamm eh mi torojo moroja ah, ne téeméeri yamb ci caay affaire baa ngi saf de mais baax na foofu la foofu la foofu la foofu la eh boo déggee ñu naan am na koo xam ni Pikine la doon jóge mungul bindu turam jàngul lenn la xam ci français boo ko fekkee pale loolu lay wax mon cher frère mon cher frère moom rek la dégg ci français milliardaire la nag au pays du Wurang Wang la dynastie Faysal dañoo jël ay ñoo xam ne jànguñu jonguñu tekkiwuñu woon dara ñu def leen ay blanchisseur d'argent di sàcc ay milliards di leen ko jox di leen jox ay marché à coup de milliards ñu dem ba doon ñoo xam ne daal dañoo yaakaar ne ay intouchable lañ dëkkee wurang wang dëkkee sàcc donc moom donc français la xam français nga koy dégg mu wax ah Ndom Ba mon cher frère mon cher frère France français mon cher frère la français nu muy large nous ak nu mon cher frère la ci xam la mon cher frère mon cher frère ok tay nak dañuy ñëwaat encore ci mon cher frère Thierno Bandom mon cher frère mon cher frère ok ton cher frère toi mon frère tu as réussi à avoir des milliards tu sais même pas lire ni écrire tu n'as jamais fait les banques mais tu es arrivé d'avoir d'être un multimilliardaire mon cher frère Thierno Bandom Thierno Bandom la ñuy ñëw ñu continuer wax nañ Thierno Bandom ci armement la nek de moo ñuy jëndal suñu armement yi waaw moom mooy dem ànd ak suñu gendarme yi ànd ak suñu alkaati yi ànd ak suñu sécurité dem ah di jënd ji ay matériel pour euh, suñu armée <laughs> waaw daala waaw kooku nga xam ni déggul français déggul anglais déggul espagnol lu mu xam mooy mon cher frère mon cher frère ok kon kon nañ dem ci mon cher frère mon cher frère ok n'y a pas de problème, mon cher frère. On arrive, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive. Parce que grand... Le grand journaliste, mon mot, mon def poste ne me revenir à quoi, ça a été vraiment génial Ouais, ça a été vraiment génial donc de revenir à ci c'est des gens qui, ont il faut les écraser parce que tout simplement amuñu njëriñ pour euh, la société va pare il ay mille mille milliards lañ yor ay mille mille milliards ñu sacc ci askan wi mom lañuy diko di ci ay aussi Gabriel Khan ci galam yi la mais Gabriel Kane nak États-Unis des ah. ba gars wax Gabriel États-Unis na États-Unis Gabriel il mi France daf légui mu deux mois Gabriel Khan, mi France gis nga nu mu non Gabriel Khan. bu mu demee gisanteeg Macky Sall après Gabriel Kane aussi Macky Sall jot na ko lijjantil ay paie passeport diplomatique tout après bon dem na France quoi dem na France en tant que diplomate Gabriel Kane mi ngi woon Paris. sa fait deux mois sama gars yi topp nañ ko renseignement généraux yi mu lonk benn benn euh, pull vert boo xam ni bu am capuchon. di romb champs nii sama gars yi jël ko vidéo yónnee ma ko mii mi ngi portable nii di wax téye ko nii di yi topp nañ ko. après mu dugg ci ben banque tout ça gars yi nañ ko donc Gabriel Kane moom mi ngi France mi ngi lijjanti affaire mom bi ak problème yoy mu amone ma nga fa donc euh, voilà mom xam ni affaire yi cool na donc euh, elle fait tout pour s'en sortir xam nga dem yonam quoi mais Gabriel Kane nekatul Amérique mi ngi France ça fait bientôt euh, un mois et quelque hein? un mois et quelque légui mu def fa deux mois mi ngi mi ngi mi ngi Paris quoi donc pour ñuko xamulone comme man Amérique bobu la len bayone té tam di len xamal ni Gabriel Kane aussi porte woon na plainte waxon na ni sa keureum dañ ko dañ ko dañ ko dajji et tout ça bon porte woon na plainte au niveau du commissariat central de Dakar donc euh, mo wax tam encore commissaire commissaire yi len gel yi ngeen di wo téléphone bàyyi len gel bu porte plainte bàyyi fa numéro téléphone ngeen kay wo di doxan yorna yor naa numéro yorna naa seen audio gay len gel yi ngeen di doxan commissaire commissaire central yi lay wax bàyyi len gel yi nga xamni bu ñu ñëwé di porter plainte ngeen leen di doxane ay autorité ngeen policière moytu leen loolu yor na seen audio am gel bo xamni mom tamit Gabriel kan ba mu porter plainte bayiko fa am na ab commissaire gu kay wo di jema doxane dañuy wir wir bu ñëwé mel ni kuy wa dossier bi ñi ngi koy continuer wa ñi ngi ci enquête yi na commencer doxane ay ngaaka ngeen moytu leen loolu moytu leen loolu yor na seen audio du ben du ñaar ci ay gel yi ngeen di ñu porter plainte ngeen jël seen numéro di leen doxane attention nak nag vilipender seen tour tur moytu leen lolu yee ok wala ma dugalal leen euh, aji sar ba paré ma dugalal leen aji sar ba paré ou bien bu la nexé tam mu na leen ñaf ñaf aji sar ba paré après ñu ñu ñu ñu ñu ñu jàll ci ñoom Thierno Ba Ndom ak ñoñu non may la na sama audio bi la doon jema yobbu audio bi la doon jema yobbu quoi dafa xawa 10 sob rek ma jox leen ojo bi après ñu dem ci Thierno Ba Ndom ak gars yi xaj yi dee ak kuti mbow ak kutu mbaasaani ojo bi daa daa diis quoi benn ojo laa leen jox rek vite fait après ma jàll ok one second one second tey dossier dafa bëri tey dossier yaa ngi nii dossier dafa bëri gars yi ñu jox leen benn ojo am na tamit ñu may laaj nan ma yónneel xam nga affaire yi étape par étape la ba ngeen may laaj audio joxuma leen audio yi ci temps boobu ba mu jotee jox naa leen ko yéen a may laajaat ay adresse su autorités yi nee naa leen def leen ndànk mënuma leen joxagum nii te génnagu leen ma jox leen adresse autorités yi doo leen ci def dara doo leen ci def dara on a tout répertorié ndànk toog leen fu ngeen toog ngeen ñu révolution bu nekk day am ay tête day am ay cerveau day am ñuy dem au front dafa lu nekk am na ñun xam nañ front yi koo gis mu doon tey tête yàgg na ci front bi ñun yàgg nañ ci front bi bay tey di doon ay teg ay locomotive bopp nga xam ne luy dal ci ñun lay dal balaa yegsi ci yéen donc doucement lentement mënuma jëli ay adresse di ko sànni fii ngeen jël ko yor ko noonu bës bu jotee bës boo leen jógee bés bu jotee ñoom ñu jóg pour def def lu bëgg a def ngeen fépp seen kaw bës boobu dinañ leen jox lépp jox leen directionné leen won leen lan la ñuy def voilà luñ leen njëkk a wax jàppagum leen nee nañ leen nocturne la xeexu nocturne la du xeexu bëccëg xeexu nocturne la briquet almet pneu essence tal xexu nocturne donc ndank rek ngeen dégluñu ñu dox ak yeen ci maayin ok yàkkamtiwuñu jëluñu ay numéro diko fi duggal diko sanni nonu ak ay adresse yi ñi sanni nonu ngeen jël ko téye ko nonu ba après ñooñu changé loolu yu fu ngaaka la jotagut bëss bu joté dina genn fu nekk ni ba ko defon ñom ñu xam affaire yi mais dañuy changer kër wala ñu daw mais on a tout répertorié def leen dank doucement ngeen deglu

ñu enregistré dama ko doon dugal rek dama doon jël bii dugal bee ok ñu ñu ñu dugg ci affaire aji Sarr ah ok ñu acca ñu déglu affaire Adji Sarr wurang wang ojo ojo ojo ojo déglu leen jàmm la ojo ojo ojo ojo ojo ana borom ojo ojo ay kilifa ah. su ma leen waxoon ne tamit dem leen wax ak suñu sëriñ suñu kilifa bu fi ne duñ ñëw parce que xam nañ am nga influence bi duñ ñëw. duñ ñëw duñ ñëw. waaye léegi yow yow léegi toogal seetaan ma man danaa dugg ci mbir bi. d'accord man maay dem seete ay kilifa. su ma leen waxoon ne tamit dem leen wax ak suñu sëriñ suñu kilifa bu fi ne duñ ñëw parce que xam nañ am nga influence bi duñ ñëw. duñ ñëw duñ ñëw. waaye léegi yow yow léegi toogal seetaan ma man danaa dugg ci mbir d'accord man maay dem seete ay kilifa. Ah, su ma leen waxoon ne tamit dem leen wax ak suñu sëriñ suñu kilifa bi fi ne duñ ñëw parce que xam nañ am nga influence bi duñ ñëw. duñ ñëw waaye léegi yow léegi toogal seetaan ma man danaa dugg ci mbir bi. d'accord man maay dem seete ay kilifa. wax su ma leen waxoon ne tamit dem leen wax ak suñu sëriñ suñu kilifa bu fi ne duñ ñëw parce que xam nañ influence bi duñ ñëw. duñ ñëw. wala. léegi yow yow léegi toogal seetaan ma man danaa dugg ci mbir bi. d'accord man maay dem seete ay kilifa. su ma leen waxoon ne tamit dem leen wax ak suñu sëriñ suñu kilifa bu fi duñ ñëw parce que xam nañ nga influence bi duñ ñëw. nu ma nu ma ko daggee la quoi. waaye léegi yow yow léegi toogal seetaan ma man danaa dugg ci mbir bi. d'accord man maay dem seete ay kilifa. su ma leen fii moom day lu muy wax rek moom mooy euh, dafa buggoon gars yi dem négocier ak famille jox ko xaalis quoi jox leen xaalis moom famille loolu lay lay rek. je Adji sa d'expliquer expliqué mais tu vois que ça se répète là. d'accord man vais dem ay que oh, tamit dem wax ak suñu suñu bu duñ parce que xam nañ am nga influence bi duñ ñëw. duñ ñëw duñ ñëw waaye légui yow yow légui togal seetaan ma. Euh, après après après après après Madame xol ma affaire yi. après ma xol affaire quoi mais de toute façon. ok ok xam nga man nag nga ko laa ci affaire yi de ni ñu koy daggee la quoi ni ñu koy ni ñu koy daggee ni ñu koy daggee mooy sama problème audio ojo audio yëpp ngi fi ojo yëpp a ngi fi et puis MC Niass bi tamit ak Koura euh, bi mi ngi fi mais dafa am lu may xaar dafa am lu may xaar lépp ci stratégie lañ koy defee quoi mais on va revenir on va revenir donc kan laa leen di indil ok waaye non Thierno Ba Ndom laa leen waxoon de après dinaa ko xool parce que lépp ci portable bii la nekk ci iPhone bi la nekk quoi je vais voir avec ne vous inquiétez pas on va tout régler incha allah on va tout régler man lu ma leen wax rek mooy concentrez-vous xam nga euh, il faut ngeen xam ni instant yi gagné nañ xaaju combat bi ñi ñuy xeexal dañoo paniqué wu dañoo jommi dañoo jaaxle xamatuñ fu ñuy taxaw de fépp la ñuy dóor ci ay fen ak ay manipulation la ñuy dund donc yéen foog ngeen focus bañ ñoom ñu tardel leen parce que yàlla jiital na leen ba pare xeex bi début bi ñoom ñoo fa nekkoon léegi jamono ji ñun ñoo tenir affaire bi ko téye nekk ci kanam donc gis nga weew weewu ginnaaw yi bu leen ko déglu bu leen ko déglu parce que oto bu nekk ci kanam mooy déggu corne mais oto bu nekk ci ci kanam ci mooy corne oto bu nekk ci kanam mosoo gis oto bu nekk ci kanam di corne mus ngeen gis auto buy accéléré dara newul ci kanam muy corné lolou amul fenn donc auto bi ci ginaaw lu meuna nek pour meuna a corné ñoom ñooy corné parce que ñom ñoo paniquer wu dem ba di wax naan audio yu ñu monter ñaar ñi waxtaan noy meuna monter audio nan la ñaar nit meuna waxtaan nga monter ko <laughs> ñaar ñi nek ci téléphone di waxtaan nga monter cest dire dañ tiit dañ paniquer wu trop complètement dañu dof instant yi billahi wallahi benn pas buñ ko defee gars yi daw jaxle nañ torop torop torop benn pas bu ñu yëngoo jëm ci ñoom ñoom ñu may ñu dëkk bi ba mu set billahi maa leen ko wax jommi nañ tiit nañ jàq nañ xamuñ fu ñuy taxaw panique général général général lañ nekk nii di def nii dañ da leen affaire bi da leen a sax panique générale dañu tiit fu ñuy yeewoo ñuy xool manipulation xolal xolal ki limtu Anita job, bu mu di di di di di ma bind ma saga ko saga yu toy xep saga ne len boy nax and leen foo naa fooyee na len dof yi ngeen don xolal saga ko de ci bir audio yi de mu dem monte na ma <laughs> Mollah nee na yéen la nax yeen yeen la nax xam nga dañu dañu febar te ñoon wa APR ci lañ am ku nek partager <laughs> waaw yow ah, ki ah, neena da len nax ah. ñoom ñoo nekk te pourtant moom laa doon saaga ay nday rek moom moom Anita Diop moomu moom moo nekk moom laa doon saaga ay ndey xëpp ci kaan ne ko yow góor jigéen nga boo dee góor rek defal audio man ojo laay def moom defal audio ba léegi bind ko may audio di saaga ndayam di jaar foo xam ne di xar juróom-ñaari xotteeku maamam laa la di dugg ci biir bagage bu di ko di di naan la fa ne mais xoolal ñimewul ba léegi euh, audio di bind mu dagg loolu monte dam yóbbu <laughs> ñoom dof yi donc ñii amuñu arme amatuñ arme dañu téye dañ paniqué wu ils utilisent tout même booy boo doon foo sax dañ koy jël dem yóbbu boo doon foo da ngay yeewu sax gis laay bu ma dem live bu ma def di foo seen des fois ma def live mu tàng des fois ma foo mais booy ba eh dugal leen ma dugal leen ma dugal leen ma euh, euh, lu mu tëddee man xamul xamoo sax tur bi kañot kañot waaye gars yi dem jël ko monté tax waaye mi ñu nii di ñaan kañot ñëpp xam nañ ñu seetaan ñëpp xam ne dama doon foog sénégalais yi des fois ma foog ñoom des fois day tàng jër ma dugal benn som fën gars yi ree mais ñoom da ko dagg monté la xolal ma ngay ñaan ma ngay waaw dafa sonn fii amul kenn ku nekk kaaw ku mus a kuñ mus a kañotal te kañotu Sénégal quatre-vingt-dix pour cent lu ñu am kaaw la amul benn sénégalais bu nekk ci kaaw bi bu ñuy kañotal kañot kay kuñ koy defal Sénégal la ne Sénégal kañotu la guñu ku nekk kaaw di xeex soxlawuñ ko te nag naa leen waxal quatre vingt dix pour cent ñuy dugal cagnotte Sénégal bu amee quatre millions trois millions yëpp kaaw la jóge donc xaw ma nan leen nit mën a nekkee kaaw di laaj yi cagnotte <laughs> te kaaw maa ni ñooy dugal feesal dell cagnotte yi kaaw maa ni ñooy joxe cagnotte cagnotte bu Sénégal ay am quatre vingt dix pour cent ñooñu ñëpp kaaw lañ nekk yor ay carte bancaire Sénégal balaa ngaa yor carte bancaire ñoom Wave lañ am di Wave Orange Money Wave Orange Money te ñun am nañ Wave Orange Money yor ay carte bancaire xaw ma nan la nit mën a nekkee kaaw ak liggéey bi nu mu yombee possibilité yi mu amee surtout ay Canada bokk ci dëkk yi gën a high level ci monde bi nit di fi nekk di laaj kañot <laughs> donc dañoo tiit dañoo jàq dañoo jommi dañ paniqué wu xamuñu fu ñuy taxaw billaay te kañot yëpp quatre-vingt-dix pour cent laa la wax ak nemmeeku tuur xaalis bu ci ëpp kaaw ci kaaw ba la jógee kaaw maan yee ko fa dugal bokkul sax <laughs> non mais loolu panique moo sonn panique dafa garaaw de panique paniquer le lepp ngay utiliser bu la ben coup mortel teul nga ki bo foré souf da ngay sanni lo for parce que ni nga def da ngay vous fu instant dañ leen rang ñu dañuy buddi sax robinet xam nga robinet bu robinet pour buñ buñ sax yanu seen kër dañ ko yanu ko parce que dañ panique kaw bi patriote rang ci tempa tan ah, ci tempa ñu ñu ñu paniqué wu donc wala <laughs> dañoo tiit metti na de gars yi yéen jàpp ngeen leen de fu nekk ni achèvement rek moo ci des génn rek dóor kaa mu jeex ay porosek loolu lépp du am yàpp gars yi almet affaire bi di boy bum bum bum dëkk bi tàkk jër tàng jër gars yi taw ngay dégg gars yi daw nañ jël nañ mbartal ma ñi ki kii Macky dugg na avion Marème Faye topp na ko wuy sama gars yi dañ nañ daw waxeet lu leer laa la wax ñi xoola briquet almet pneu essence taal briquet almet wër seen kër yi taal briquet almet pneu essence taal këpp seen oto yi taal fire fire na fépp tàkk jëppeet murder murder ba Macky daw waxeet état boobu mi ngi ñëw waa Macky daw waqeet may ñu foofu yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ñuy wër Macky anamu anam fekk dugg na avion ba may gaay yi bàyyi leen fi ne dee ngeen yàqu ngeen gaay yi ñëw nañ de billaay wallaay tel ba bës boobu dina ñëw de fu nekk ni nag ñoo leen jekku nee naa leen formé leen génn leen ci mbedd yi di for ay xeer dem ba ci àll bi di for ay xeer ngeen di for xeer yëpp di sànni nii ci àll bi waxoon naa leen gis naa kenn ko def benn vidéo de leen dem di formé wu travaillé ne ñenn ñi dugg ay salle commencé yenu yanu ay weñ ne ñenn ñi daw ci tàpp yi pour am endurance xool yi ubbeeku am endurance parce que dañuy xeex 2023 bi xeex la année année boo xam ne année combat la bu saf sap donc commencé leen di entraîner da leen dem ci àll bi di for ay xeer di sànni nii di xool seen euh, euh, kii bi nu mu tudd euh, espace bi nga xam ne seen xeer mun na fa yegg da leen commencé di for di sànni di sanni horizontalement di sànni verticalement di tëmbal yooyu yëpp da ngeen koy travailler dem leen travailler ko ba taxaw ñenn ñi nañuy daw ci xam nga tapis roulant yi xam nga ñenn ñi commencé jël ay poids parce que lii foog mu am dara physique bi foog mu taxaw foog mu am confort bi foog ngeen di mun a xeex di bañ a dellu ginnaaw na kii yooyu yëpp da ngeen de daw te ah attends dawee ne taw taw taw fort jum taxaw yéen kese nga xam ku leen xool ne da a dof fekk da ngeen di préparer li war a ñëw bàyyi leen baraade bi wàññi leen kaas yi ataaya bi dem leen entraîner wu ji dem leen taw ci tapis yi dem leen yanu weñ wu leen mentalement psychologiquement xool portée bi li ngay sànni xool portée bi fan la mën a yegg cible bi di dem gauche droite commencé leen commencé leen bu leen dara bett wax naa leen ko nag jóg leen jóg leen bàyyi leen suukar si wàññi leen suukar si wàññi leen xorom si wañi len suukar si wañi len xorom si génn len di entraîner voilà génn len di entraîner dox dox defar len poji ak loxoy poji loxoy daw ci tapis bi yann touti weñ ni ay tam ni arrière avance gauche droite seug tak ñu dor ben lako tak tak seug na entraîner ni ngeen koy entraîner lépp entraîner leen ko arrière yi avance yi allez les gars on attaque allez allez let's go gars yooyu dañ ko tak tak tak ay mi ngi ñëw tak tak tak allez dugg fii yëpp job leen ko job leen ko travail leen ko 2023 bii la ngeen wàññi suukar si gën a wàññi xorom si voilà ñun ñu ngi teg stratégie acca ñu dem xaar ma ñëw xaar dossier bari may ma ngi ñew de ok ba du ma ñëwagum ci bi dalen entraîner dalen entraîner ngeen wañi sugar ci dalen entraîner ngeen wañi sugar ci dañuy xex rek gaay dañuy xex rek mu ñu seetaan Macky Sall bo bu léegi après mars dernier ba suñu jonn yalla tay li bëgg moy am loolu du fi am te du fi amé voilà donc préparez-vous préparez-vous encore une fois préparez-vous waxna len ko ok jàll ci vous ñu fi bu préparez-vous préparez-vous c'est tout ok ana mon cher frère ça Mm-hmm. ok mi ngi nii bon on récapitule Thierno Ba Ndom Thierno Ba Ndom mooy indil leen photo mooy mon cher frère multimilliardaire bi nga xam ne mi ngi am bureau biir Dakar mënul lire turam jàngul addunaam yëpp mon cher frère la ci dégg mon cher frère buy wax nag naan mel ni kuy macc tàngal mon cher frère donc euh, ñu indiwaat ko rek pour ñu ko musul xam quoi ñu indiwaat ko parce que nit boo xam la nit yi dañoo jàng ba dee moom jàngul jongul ay nolom doyut mais daal <laughs> dealer la quoi mi ngi ni mi ngi ni kii mooy mon cher frère moom ak Amadou Ba day ànd ak moom day dem kër Amadou Ba ci premier jabar Amadou Ba ak ñaareelu jabar Amadou Ba day dem ci kër yooyu di fa taxawaalu di fa naan ataaya di fa toog di dul di dajale kii yaay kii mooy Thierno Ndom Ba papa kii mooy Thierno Ndom Ba ab cogg la ab jàgg la markat la mais multimilliardaire la day weexal maanaam lépp lu ñu sàcc day weexal xaalisu fay sàll bi donc kii nii mu ngi tudd Thierno Ba ndoom mu ngi dëkk Pikine Icotaf cité 1 këram nag mu ngi jàkkaarloog école Iba Sène ñu koy wax école 4 boo wàccee arrêt terre bi rek Pikine boo doxee ba 200 mètres di nga gis këram arrêter bi Pikine boo wàccee à deux cent mètres kon la kii moom xam ngeen këram à deux cent mètres rek arrêter bi Pikine à deux cent mètres di nga gis këram waaw mu yore fa nag benn def na fa ay caméra def na fa lépp am na sax ay nit yam yooyu garder donc ku ko jàpp jàpp ngay milliards yu ñu sàcc ci famille Faye Sall yi ñu ko jox mu koy blanchir donc euh, mu yore fa nag benn mouvement politique bu tudd Pikine si la bokk mu dajale fa ay mbër comme ay ñoom Boy Niang 2 ak ay comédien ku ci mel ni ay maalaw bu pikin waaw nga xam ni sax kooku dem na ba dëkk ci këram bi mu am Pikine maalaw 2 donc euh, euh, nga gis la ñuy def ay video vidéo TikTok boo ci gis rek mu def ko xamal ni kër Thierno Bandoom la bi nekk Pikine la ko defee waaw mooy ñoom maalaw deux vidéo TikTok yi ñuy def yëpp kër Thierno Bandoom la ñuy nekk suba ngoon guddeeg bëccëg waaw papaam nag moo ne woon chef de quartier bi bu Pikine boobu ma wax pendant des années chef de quartier bu mu décédé la ko jox doomam mu mel ni ñoom mbir yi ndono lañ ko def chef de quartier bi Pikine boobu noonu ñoom bàyyam moo ko doon ba faatu joxaat ko beneen frère Thierno ba moom mu doon <laughs> mu ñu doon nu ko daal ñu doon euh, chef de quartier bu quartier ba waaw napp leen jaay leen doole <laughs> voilà doon ki euh, chef de quartier ba daal waaw Thierno Ndomba comme ni leen ko waxee même mag ji même chose waaw jànguñu xamuñ dara bu demee élection élection ba élection nga leen di gis ñu dugg ci biir Pikine ci kër ya di joxe ay ceeb ay suukar parce que dañoo jàpp ni duñu dara duñuy fu nekk ni talul benn Pikinois mais bu élection yi jotee rek mu jël ceeb suukar def joxe leen asaka def leen ay ay miskin bi papaam gaañoo nag en avril deux mille dix huit fekk na temps yooyu mi ngi nekk ak Aminata Tall Aminata Tall même que. Saara Cissé ñooñu la takkoon waaw donc papam gaañoo Macky ñëw na fa te Thierno Ndomba liggéeyu daara mais Macky Sall président bu papay Thierno Ndombaam Thierno Ndomba gaañoo en 2018 Macky Sall jël def na cortège dem ca dëj ba léegi ngeen laaj Macky Sall lan la bokk ak Thierno Ndomba ba war a dem ci dëj dëj ba <laughs> Thierno Ndomba bu dee bu dee simple sénégalais la. muy lijjanti xaalis kese Macky Sall jël lu day ni cortège présidentiel dem kër kër papam parce que papaam a gaañu muy muy dem di jaale ci Thierno ba nga xam ni ah te moom du homme politique Thierno Ndomba du homme politique <laughs> newul ci état bi liggéey fa dara mais Macky Sall demoon na ca dëj ba nga dem maami cortège waaw sol yére yére Macky yi ñu tuddee euh, couleur euh, euh, marron beige mooy mooy garaaw yére Macky yooyu rek waaw ànd ak le ministre de l' intérieur c'était Aly Ngouille Ndiaye ñoom Abdoulaye Daouda Diallo ñoom Abdou Karim Sall borom Oryx yi armée bi yëpp ñu ngi fa woon fekk fa euh, le porte-parole euh, Cheikh Bass Abdou Khadir il était là aussi waaw Thierno Thierno Ndomba nag Mariam Faye moo nekk euh, marrainam moo nekk marrainam boo seetloo mooy rare politiciens yi nga xam ni day tok ak maki di afficher wu di lek du dara ci mom c'est facile pour lui wow si vous vous rappelez très bien keroog ba Californie di def live yi ak maki Sall fele ci Paris France waa jooju jógoon di rocceeku Californie nan ko non bul dem bul dem bul dem waaw kooku Thierno Ndom balawon bu mi def live non am kuy rocceeku di daw kooku Thierno Ndom balawon mom mo fa nekkoon donc day ànd ak Macky Sall ñuy dem fu la neex di dugg euh, fu leen neex voilà parce que mooy moom day liggéeyal Marème fay moom Marème Faye da ko fa teg pour milliards yu sàcc yëpp Thierno Ndom ba daka ci raxasal donc euh, ki ngeen déggoon Kaliphone naa ko non non toogal bul dem bul leen toogal kooku mooy <laughs> Thierno Ndom ba muy rocceeku waaw donc saara saara Cissé moom ci jabaram yi la bokk waaw bu muy takk tamit Saara Cissé euh, invité mi nekkoon fa Aminata Tall ci boppam moo fayoon traiteur yi ñu indi ko fa ba muy takk tamit Amadou sàll ñëwoon na fa bu muy takk jabar ba mu euh, Saar ba muy tamit ci njaal ma Amadou sàll sax ñëwoon na fa tamit ci njaal ma waaw après sarax si di ko jaale après si sarax si maanaam bu mu faatoo Macky Sall ñëw na mais ci sarax si Amadou sàll moom doomu Macky Sall sax ñëw na jaale ko donc war ngeen mën a poser question doomu aadama bii nan la mun a def ba baayam gaañu Macky Sall def cortège dem fa ñuy ñuy ñuy def sarax doomu président ñëw ponkal yi ne ci réew mi yëpp ñëw te kii jàngul jongul ay na loon doom mënul liir benn dégg lenn la dégg ci français mon cher frère mon cher frère la xam ci français Je la ci donc nous xam ni kon république bananière lañ république bandi salté république gu république satch république bo xamni ku leen am nga ndam ndax mérité nañ ko ndax république de Vautour. waaw donc Saara Cissé nag da ko takkoon takku suuf bu njëkk ba da ko takkoon takku suuf di ko nëbbu Aminata Tall maire boobu nag Aminta moo ko mag fuuf loolu ñëpp xam nañ ko moo ko mag fuuf Aminta moom ay xale lay lay faral di seyel waaw Thierno Thierno Ndomba comme doom doom la woon ci moom mais ay marché na ko joxoon à coup de milliards Thierno Ndomba dóor ko dóor marché bi yëpp xaalis bi yëpp ay milliards la ko Aminta Aminta Tall joxoon mais mu dóor ko waaw mu dóor marché bi loolu lañ jàppante woon day affaire sax ñaare lag yooyu donc Saara Cissé takk suuf la woon voilà donc bi ko maire bi yëgee ne dinga nga bàyyi Saara Thierno gëmloo ko ni c'est fait alors que moo ngi continuer mun mun dafa wax aminta ne noo bàyyi naa alors que ma nga continuer ci suuf di génnanteeg Saara Cissé waaw ba moom ak Saara Cissé bu TFM am nañu doom bu jigéen dañuy teer noo bi mais moom ak Saara Cissé takku suuf la woon Saara Cissé bu TFM sax takku suuf la woon bi nga xam ni Thierno Ndomba da doon génnanteeg moom ba takk ko takk suuf donc am nañ ci sax doom bu jigéen do euh, Saara Cissé nag États-Unis la accouché voilà bañ koy ngénte tamit doom ja ci suuf lañ ko defee dañ ko nëbb amul presse people amul dara waaw donc euh, jamono ji nag moom ñoom ñaar seen génn des na waaw kiiwatul quoi neexatul seen sëy ba tas na donc euh, Thierno Ndomba comme nu ma leen wonoon élection locale yi euh, bu mu jege alal gu baare la jël ay milliards di ger waa Pikine di leen ko jox ginnaaw raayek waaw mais nag moom pap góor gi ndong la àndaloon Thierno Ndomba nag moom tam mooy papa kii di live tudd Bah ak euh, ki nga xam ne mooy Pape gi Ndong moom mooy seen moo leen di maral mooy seen xaj bu leen di maral seen seen geen yi kooku moom mooy Bah Diakhaté waaw moom markat la boo gisee làmmiñ bi sax làmmiñu xaj la yor dafa gudd mar bu yàgg la bu mar bu yàggee sa làmmiñ bi fii lay toll fii parce que day dem ba nga xam ni fibre yi day dilaté wu ba day toll fii boo leen xoolee ki nga xam ne moom mooy euh, mbaa jaxase fii la làmmiñ bi toll <laughs> ndax mar bu yàgg day dem ba fibre yi day bàyyeeku moo tax mbaa jaxate moom <laughs> comme xaj am la sax nag am xaj la donc mu dem di jàppale Pape góor gi Ndong moom la àndaloon booy bu ndaw Cheikh Diop bu Pastef moo ko dóor dóor leen ba toog seen kaw <laughs> Pikine ñoo sarik de yulli wulli tulli lañ ko def Thierno Ndom ba jël ay milliards Pape Gorgui Ndong jël ay milliards ñu def pikin di coob di coob dañ leen a wulli wulli ba ñu jeex dañ leen a yulli yulli ba seen poos yi jeex ñu wulli leen wulli leen ci bureau de vote yi bañ ne kenn ñu tulli seen maam <laughs> ki ko def nag mooy Cheikh Diop booy bu ndaw Pastef Pikine dañoo jàpp ñoom Thierno Ndom ba ak Pape Gorgui Ndong yulli len yulli posi ba sen poches yi vide parce que sen alal la c'est bien fait wulli len ci bureau de vote yi bañ nek kañ ak ay coup ñi mir ñu tulli sen mam jël nak jox ko Cheikh Diop nga xamni mo gagner presque ci bureau yépp bu résultat yi génné ñu yulli wulli tulli len mu mer tal ci gi di saga sen day continuer dem ñibi ville <laughs> ne do fanane sax pikine waaw ay traître ngeen ah, ah, di saga gaay ndax mer gaay yulli wulli tulli ko tulli yi met sax waaw Thierno Ndomba nag rarement lay fanane pikine ville lay fanane waaw boko beugé gis demal café de Rome wala nga dem hôtel euh, bi nga xamni euh, restaurant bi nga xamni mi ngi nek ginaaw palais Ndomba nak doomu ñoom Moussa Fall la tamit waaw Thierno Ba Ndom doomu ndeyu Moussa la voilà donc élection législative yi bu mu jegee moom la Macky joxoon xaalisu campagne benn Bokk Yaakaar bi ca Pikine ay milliards Thierno Ndom ba la ko jox jox ko Pape Gorgui Ndong de la ko jox ay milliards la ko Macky Sall jox ci élection législative yi ay milliards laa lay tagal waa ji liquide liquide mais ginnaaw ci local yi jotoon na booy mu iri leen waxtaan ak ñoom proposé leen cinquante mille booy yi siisu ni ko non cinq cent mille mu mujj leen jox trois cent mille milliards yi sàcc mu mujj jox booy Pikine ay trois cent mille parce que cinquante mille la leen proposé woon booy na ko mukk voilà gaay boy nako 500.000, ñu mom mu mujj jox len boy 300000 300000 ci ku door ay milliards boy sey nako waaw yow mu iri maire wo maire ñu len suma gagné jox len 30 millions sen GIE bi mais bureau de vote yépp lañ ko door bureau de vote non Pikine ñoo sadik bureau de vote yépp lañ ko door mu leen di promettre comme ñoom nuñ koy defé fen rek ne dañ leen ne moom bu gañee seen GIE bi dina ci def trente millions ñu ne ko waaw waaw jàngul nag wax naa leen ko waaw doo ko fekk mukk moom daal mon cher la xam même dans même euh, dans son bureau bu mu voté sax dañ ko faa dóor dara xamu ko boo ko fekkoon muy lakk tubaab <laughs> waay da ngay fàq boo fekkoon na Ndomba muy jéem a làq tubaab da ngay fàq yar cawate ko ba mu saw ba mu saw ay tànkam ba mu saw ay tànkam bopp bi feesu waaw te tàppet la tam raab ragal la <laughs> dégg naa demoon na central ne daf may porter plainte police centrale gars yi policier yi ne ko mais yow wér nga yow kii bàyyul Macky Sall sa baay bàyyul Marème fay Sall sa yaay mu ngeen ne da ngay porté ba mu dem ba commissariat central nee na commissariat central la may porté plainte de ma nekk Canada mu may porté plainte commissariat central <laughs> moo tax policier bu ñu gisee mu indi plainte ba ak dof-dof lu ñëw uy moo ko yow yow koy porté yow Thierno yow kii bàyyiwul sa baay Macky Sall bàyyiwul sa yaay Marème Faye bàyyiwul oyof sër ngay dañ ko dàqaat ab dof la dof xam nga dof dof du wér muy may porté plainte commissariat central xam nga ñoom yooyu la ñu napp gars yi rek foofu noonu sa bàyyi Macky Sall sax mu ñemewuma apporter plainte te mënuluma dara nga yow yow Macky Sall bu ma ko téye fii ba léegi mars ba léegi ma may ma ko fifteen lu mu musul dégg man maa ko wax mu ma munu ko yow ngay dem a central di ma porter plainte moo tax policiers yi ne ko yow cer na wér nga kii bàyyul kenn ngeen naan non mais jarul baat nit bon bopp bi mooy bopp bi lu ma leen waxoon bopp bi feesul mon cher frère daal la ci xam mon cher frère xam fu mu ko xamee nag mais une ku mu gis mon cher frère mon cher frère <laughs> te la coow rek la ragal waaw donc amoon na benn rapport boo xam ne xawoon na ko fi boros tuuti quoi waa ji naaw say dem France toog fa nee naa leen ay tàppet ngeen ko séqal bu tàngee tuuti rek ñu daw benn rapport bu ndaw mu see daw dem France benn bu bu ko laal boros tak boros mu ne menteng <laughs> waaw donc Thierno Ndom ba bàyyi ji mi ngi tudd Thierno euh, Amadou Ba Ndom Ba Ndom mooy bàyyam mooy ki nga xam ne bu mu gaañoo Macky Sall jël suñu cortège ak suñuy million ak milliards dem fa ci dëj ba Amadou sàll tamit milliardaire te chômeur la bàyyam a ko wax kooku it dem na foofu donc bàyyam mi ngi tudd Amadou Ba Ndoom moo ne woon délégué de quartier bi de 1989 à à 2018 89 laa leen wax de 89 la baayam nekk délégué de quartier bu Pikine nekk fa ba bu muy dee 2018 la baayam dee 89 90 91 92 93 94 95 4 baayam nekk ba léegi chef de quartier. ñi ñii ñoo moom waa Pikine de ñii ñii ñoo moom mais Thierno Ndomba bàyyam quatre-vingt-neuf ñun bu ñuy doog a judd la bàyyam nekk foofu noonu délégué de quartier chef de quartier ba jour bi bàyyam di dee en 2018 l'année où il est son père Amadou Ba Ndom décédé doog leen ko bàyyi c'est-à-dire ay nitu nguur la ñuy toog yoo xam ni bu ñu toogee tant yàlla reyu leen du ñu fa jóge tant que yàlla reyu leen parce que sénégalais yi duñu fayu dañuy toog rek yàlla di leen fayu dañu toog na yàlla baax na te yàlla fay dina day lay fayul mais mun na yeex donc euh, baayam quatre-vingt-neuf ba deux mille dix-huit bu muy faatu ma nga faatoo vingt-neuf ans la toog la baayam toog ci euh, <laughs> nekk délégué de quartier toog Pikine daal ba jur fa doom doom ji di Thierno Ndomba tamit indi ay milliards mu léegi chef de quartier bi xam nga kan la euh, frère doom ba kooku tam toogaat doonaat foofu noonu <laughs> moo koy continuer moom fu nekk frère Thierno Ndomba moy chef de quartier ba bayam ba quatre-vingt-neuf ba deux mille dix-huit frère Thierno Ndomba jëlaat fu nekk nii ña continuer alhamdulilah njaboot gi baax na c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien voilà non la quoi nak mom moy euh euh voilà moy Pikine quoi waaw cité 1 en face euh, école Iba Sène ñu naan ko école 4 waaw mi ngi noonu kooku mooy Thierno Ndomba mi ngi ci ay armement mi ngi mi ngi ci mi ngi mi ngi ci euh, mafia mi ngi ci am na sax xaw moo wax leen entreprise am bi yor na entreprise blanchiment d'argent euh, doomu doomu ndeyu Amadou Ba euh, tamit Thierno Ndomba doomu ndeyu Amadou Ba ne da ko bandum gi ne da ko bandum gu saf sap sap sap paaral bàyyiwuñ dara nag donc dañuy ñëw vite fait moo ne Thierno Ndomba entreprise am bi quoi bon TBA investment loolu la entreprise société Thierno Ndom Ba tudd te mënul bind nag nee naa mënul bind dañ koy bindal sax projet donc TBA investment moom mooy nom de la société de Thierno Ndom Ba voilà loolu mooy <laughs> euh, kii bi am na appartement am boo xam ni fa lay iree cagga ji mi ngi nekk fan résidence foofu lay iree nag caga ji caga ji nga xam ni mm, Thierno Ndomba da leen di jël di leen wudang wang bokk na ci caga ji wax naa leen ko mais kooku moom doorkat la woon muy Gabriel kan moom boo leen ko laajee xam na ca fan résidence appartement Thierno Ndomba fu muy iree caga ji waaw voilà foofu lay Thierno Ndomba di iree caga ji di leen fa wudang wang donc prêt ñu dem ci kii kii kan la yii kan la xool leen bu baax wanoon naa leen ko fii ma indiwaat beneen photom mi ngi nii lu tax ni ku ma leen woon nag mooy yaa ngi lekk ci xaalisu sénégalais moo tax ma leen di indi mais ñi intéressé wuñ ma xaalisu sénégalais yi ñuy lekk moo tax kii nag mi ngi tudd Amsatou Seye Amsatou Seye loolu la tudd kii ndaw si dafa lekk lu bëri ci yéen Amsatou Seye la tudd kii ki ñuy woowee Aly Ngouille Ndiaye moo koy wurang wang Aly Ngouille Ndiaye moo koy wurang wang niin jàppale Aly Ngouille Ndiaye moo koy wurang wang kii nag la Aly Ngouille Ndiaye di jël ay sañuy million di ko ko jox ndaw si appartement bu mu yaron bu ko ali nguy ndjay jox 800000 francs lay fay 800000 francs lay fay li nga xamni par mois 800000 ndaw si day orné boy def anniversaire wala mariage mom mo koy orné di rafetal di def griyang griyang bi griyang giriyaan bi affaire yooyu muy tak di nes nesi donc ca ki nga xam ni mooy euh, Aly Ngouille Ndiaye moo koy wurang wang yéegoon ci benn rythme de vie boo xam ne xale bi moom pour moom buy dox du laal suuf ah Aly Ngouille Ndiaye Aly Ngouille Ñambi Ndiaye Aly Ngouille Ñambi Ndiaye Aly Ngouille Ñambi Ndiaye nak ndaw si bokk na ci ñu muy ñambi di leen wurang wang Aly Ngouille Ñambi Ndiaye Aly Ngouille Ñambi Ndiaye ah day décoration moom loolu loolu lay liggéey moom am satu sey décoré ay xew donc appartement rek c'était huit cent mille francs mu ngi ko yóbboon virage immeuble derrière immeuble indien Aliou Ndiaye moo ko fa wutaloon appartement comme cage ji dañoo bëri foofu nag virage ginnaaw immeuble indien fàttaliku leen foofu la seen miis ba dëkkoon moom it foofu lañ doon jaay jaar gaa yi dafa jaar di ko wutang wang donc Aly Ngouille jaay xam na foofu wutal na fa ndaw si appartement de huit cent mille euh, virage immeuble indien ba jox ko muy ran jënd ko Range Rover bu bees tàq Range Velar bu récent Velar Velar Velar Range Velar lay dawal Range Velar mooy mooy bu récent presque last cri Range moom lay dawal Aly moo ko jëndal ci seen alal yéen ci seen xaalis aali mook ko jëndal jox ko passeport diplomatique passeport diplomatique la ko jox mu yor passeport diplomatique ànd ak Aly Ngouille Ndiaye mu koy yóbbu di ko wurang wang wurang wang muy ànd ak moom ay séminaire ay mission mission wurang wang séminaire wurang wan des fois mu ànd ak Aly Ngouille ñu bokk benn vol des fois ah, moom mu jiitu fa Aly benn jour waaw ñiy njaaloo étatique di naan seeni sàngara waaw pour xamal leen ni Aly Ngouille Ndiaye day naan sàngara ndaw si bu ko sama renseignement généraux yi velar 2023 moom lay dawal moom lay dawal récent moom lay dawal moom mii velar am satu sëy velaar bu deux mille vingt trois la yor di fay appartement huit cent mille bu ko addi yor passeport diplomatique yor passeport diplomatique di ànd ak Ali saa yu Ali dafee mission indaale ko ñoom ñaar ñuy àndi des fois benn vol des fois euh, gaa yaa ngay confirmer nag je confirme di ànd ak moom wala des fois mu jiitu ko fa ñuy njaaloo Ali Njambi Njaay ñi naa ni sàngara ndaw si sama gars yi dañ maa indi benn vidéo boo xam ne dako doon enregistré tay ko xaw ma lu mu doon def di wax ak vidéo bi ma gis muy wax ak benn xaritam di ratatati ba kay wax ne day naan sàngara moom ci biir vidéo bi xam nga dañoo ëppal ne day naan sàngara ko nag yow yow am sat yow noo naan mu neen aalee ma ko aalee ma ko jàngal aali moom ma ko jàng man doonu ma naan sàngara mais xam nga gars yi boo ànd ak ñoom dañoo yéeme daal da ngay ànd ak ñoom dañ lay foog da ngay seen vice ak nangam nangam parce que dañ lay wurang wang di la sotti ay sàngara di kon mar ci sa bagage donc ndaw si nee na moom ansatu moo ko nangu nee na aali day naan sàngara ba moom sax day naan sàngara ndax aali boo lay futtee di la wurang wang da lay sotti ku nekk ak sa ñoom seen visa ali da sotti sangara champagne yi di ko mar di mar sa bagage yi di mar sa yaram bi yëpp di la di la naan loo sangara donc loolu ndaw si moom moo ko wax ni dund na ko ak Ali Nguy Ñambi Njaay nee na Ali Nguy Ñambi Njaay donc maanaam euh, da ko doon ànd ak moom ay mission wurang wang di ko yóbbu di ko sotti sangara ci bagaasam yi di ko mar ak naan ak ci weenam yi ak di ko naan loo sàngara donc loolu moo tax moom Amsatou nee na moom tamit léegi day naan sàngara donc euh, ñu indi leen photo yo ngeen ngeen bañ a faat parce que am na ñu mën ñu dugg léegi ci wurang wang la rek ay milliards yoo xam ni waa kii la naan ko sàngara baa ngi nii kii la aali di sotti sàngara bi waaw di ko wurang wang di ko aali nguy ñaambi njaay di ko wurang wang mi ngi nii moom ah moom mooy Amsatou Sey voilà di ko dig takk musu ko takk nag da koy fen di ko dig takk moom moo dëkkoon virage immeuble indien yor range velar bu récent passeport diplomatique di pay appartement bu huit cent mille francs CFA donc loolu yëpp ci seen alal Ali Nguy Ñambi moo ko euh, minloo sangara ma day naan sangara waaw jour boobu sax cocktail la wax cocktail cocktail boo xam ni dafa am sàngara waaw sàcc alalu réew mi yëpp voilà Aly Ngouille Ndiaye nag di leen fàttali ministère am da ko jëndoon ministère bu muy doon ministre da ko jënd Macky Sall deuxième tour dafa woo Aly Ngouille Ndiaye ne ko booy damay gagné deuxième tour ne ko daasal dara boo bëggee ministère boo bëggee poste ministériel daasal dara parce que Aly Ngouille Ndiaye dafa yàgg sàcc yàgg sàcc ci bi donc Aly Ngouille Ndiaye débloqué loolu la xaw ma euh, ñaata la mais Aly Ngouille Ndiaye dafa fay pour jënd ministère am Aly Ngouille Ndiaye maanaam bu mu doonee ministre Macky bu mu faloo ba fal Aly Ngouille Ndiaye loolu da koo jënd ci deuxième tour ko Aly Ngouille Ñambi Ndiaye fay jël ministère boobu moo tax ku fay ba jënd ministère di nga fa sàcc moo tax Aly Ngouille Ndiaye bokk nañu dàq sàcc Afrique soo jant bokk nañu dàq sàcc Afrique soo jant donc jàppale ni Aliou Ndiaye naan katu sàngara tamit day naan sàngara day wurang wang sàcc ne suñuy suuf yu baare am na yoof ay nga maami bopp koñ ba bopp koñ ay kër yu muy tabax ci moins de quelques jours donc voilà kooku kii bokk na ci tàgga ji nga xam ni Ali waaye am satu bu nga xam ni Aliou Ndiaye da koy wurang wang ñu naan ko am satu sëy voilà ba léegi Tak nañ ko sax yagul ñaareel la mais ba légui bayagul Ali euh rythme de vie bu mu ko tamal auto yu mu ko jëndal passeport diplomatique yu koy jox avion yu mi njaaba njalle voilà <laughs> ci doomu pauvre euh, wala doomu baadoo la donc voilà donc euh, ngeen jappagum koku ci ñi Ali Nguy di wurang wang di dabax dabaxi ok kaay la ñu jël ci ki kii kan la wuurang wang kii kan la ledur, tok, Danielam Holland dóor toog d'accord xool leen bu baax ci la mi ngi alal gu bare bare bare am na ko ko koy jox voilà kii nag ci ñu di wurang wang la ci ñu duuduka di wurang wang duuduka bu Ziguinchor kii ci cagaam yi la bokk muy jël sañuy milliards di ko sàcc di tëddee kii kii nag mi ngi dëkk Ziguinchor mu ngi tudd odet Odette boo xam ni Odette buy théâtre bu nekk vautour vautour théâtre vautour kii mooy ci tudd Odette caga ji yëpp ñu ngi ci théâtre we Sénégal caga ja yëpp ak ñiy wut promotion ak ñii pare pour cagatu ji ñëpp ña nga ca théâtre ya pare raxas seen ndarpaan yi ba mu set ah fas yéene joxe seen bopp ci théâtre yi di la may promotion di la may portée nga nga jël say ween aj tóoj xoolal perverti di wër ministre booy dabax dabaxi wala benn député booy dabax dabaxi wala benn homme d'affaires booy dabax dabaxi waaye ñun homme daffaire yi nga xam ne buñ laalul état bi rek duñ leen laal suñ yoon naw ci homme d'affaires buy liggéey liggéeyam te duggul ci état bi wala sàcc ay marché ñu jox ko ay milliards mu foo donc ñun yooyu rek la ñuy wax mais duñ laal koo xam ni laalee woo ci état wala laaloo suñu xaalis donc kii mooy odet bu Vautour ci caga duudukaay yi ba renseignements généraux yi la dernière fois moom mii nekkoon na ci benn boîte de nuit Odette mii nekkoon na ci benn boîte de nuit duuduka woo ko mu jóg dem wuy ji duuduka sama niggas yi topp ko bu mu ñëwee gis ak duuduka duuduka yóbbu ko hôtel wurang wang ko wurang wang yi saf sàpp jël alal gu baare jox ko ndaw si ndaw si kontaan ñu dugal ko ca oto Doudou Ka mu delluwaat ci boîte de nuit ba keroog ah ca Ziguinchor boîte de nii ba toj na moom moo ko assuré moom Odette moo ko assuré wàcceel gars yi ay butéelu champagne keroog moom borom boite ba ah noosee na euh, vraiment alalu Sénégal parce que bu ko Doudou Ka duur ay wurang-wang yu saf sàpp da ko jox xaalis bi mu ko joxee xaalis la xaalis bari mu jox ko Odette mii nekk vautour Odette nag raxas bagaasam ya ñu dugal ko ci oto duudu kay muy suñu oto ñun yóbbu ko ba boîte de nuit ba ñu wàcce ko ba moom duudu ko wàcce ay jaanu biiram donc moom Odette mii delluwaat ci boîte ba nag ne bu kenn fayati man may fay ndax xaalis bu bari bu ko duudu ka jox muy fay gars yi di wàcce ay butéelu euh, Jack danielle gars yi di naan di fecc jour boobu vraiment ay millions ñoo fa wàcc euh, borom euh, boîte bi nga xam ne mi ngi nekk Ziguinchor keroog kontaan na loolu waaye di ko xamal ni peut-être damoon fa di wàcceel gars yi ay butéelu Jack Daniel suñu alal la jour boobu Doudou da ko yóbbu da ko woo mu déplacé wu jóge ca boîte de nuit ba dem wuy ji Doudou mu am fa deux coups après jël suñu alal gu bari jox ko mu dem kooku kii tamit ci caga euh, Doudou Ka yi la bokk mi ngi nii Odette mu ngi nii mooy Odette nekk ci seen théâtre ak seen film yooyu nga xam ni mu ngi tudd xaw ma foo tuur xaw ma voilà ay vautours lañ nii nii donc euh, kii moom mooy Odette am na tamit koo xam ni dinaa leen ko indil parce que photom laa amagul ci caga Doudou la moom it Doudou da koo jëndal oto même pas wax naa leen ko même pas deux mois oto bu tooy xepp boo xam ni six millions la ko jox caga jooju jour bu ko Doudou Ka da ko jox six millions ne xale bi ne ko dama bugg oto Doudou décaissé 6 millions liquide jox ko xale bu jigéen boobu instant yi jënd na bi. mais je sais ni parce que des fois tamit dama ko annoncé woon ndaw sa effacé photo yëpp te malheureusement jotuma capté affaire Je dama annoncé ndaw si que na boppam bu ma ne duudu ko am na càgg jëndal jox ko 6 millions de francs CFA mu jënd ci oto ci la ndaw sa dem effacé lépp luy photo. donc euh, Inch'Allah allah sama gars yi dinañ ko wër ba ne ko carré photo. indil ma ko ma wax leen ne ndaw saa nga nii lii la tudd duudu kaa ko jox 6 million ci suñu alal ci benn wurang wang ci benn 2 heures de temps ah, mu mu jël xaalis jox ko 6 millions ndaw sa jënd otoom di jaay ñi nga xam ne jàng nañ ba ne ar am seen i diplôme vraiment ndaw soosu nga xam ni moom bagage yi rek la joxe tey yor oto ñooñu di puusante ci car rapide yi ay puusal ma toog ci tata yi ak ci Dakar dem kii ñoon jàng ba ne ar ñu ñu gënu leen tey kooku di utiliser tey ay vraiment ay millions wu yoo xam ne Doudou Ka moom moo ko ko jox. léegi nag Doudou Ka dafa am fu muy iré caga ji moom it comme nu ma leen di wax chaque jour Sacré-Cœur cité CPI Sacré-Cœur cité CPI foofu la Doudou Ka yor benn bureau genre auberge la am fa benn cogg boo xam ni moom moo koy raxasal foofu di ko ko préparel avant duurukat yi ñëw pour rendi ah ki nga xam ne mi ngi tudd El Hadj nekk ci communication basket club bi mooy makaroowu duurukat El Hadj Sarr léegi nag bu fekkee ni duudu dafa woote benn ci caga de la république yi xale bi prépare comme genre Odette comme keneen a keneen caga ji ki nga xam ne moo koy recevoir jël téléphone bi ne ko duuru wax na ma ma woo kooku mi ngi tudd El Hadj Sarr mi ngi nekk ci communication basket Euh, euh, fédération basket bi communication bi koku El la moy dunguru macro wu ki nga xamni moy Doudou bi préparé bu gel bi bureau bi nga xamni mi Sacré-Cœur cité CPI euh ak CPI CPI Sacré-Cœur donc fofu mu préparé la mentalement xamal ni Doudou daf lay wurang wang tay di nga am bari prépare-toi affaire yi mbaa baax na mbaa duuf na mbaa raxas nga ko mbaa ma ngay nes ne si ndax duudu sàcc nañ milliards sénégal yi tekkiwul dara da lay wurang wang incha allah te loo am rek jëlal sa liggéey nday la sa barke baay la donc xale bu jigéen bi toog préparé mentalement duudu nag ñu chauffeur bi dawal dawalal ko oto bi nicement oto bu tooy xet climatisé duudu wàcc foq yaram ji kuc kuc kuc xam ne tey day wurang wang def nii fekk boobu macron bi cogg bi nga xam ne mooy El Hadj préparer la ko ko bien bon bureau la nag bureau boo xam ne mi ngi nekk vraiment euh, bureau auberge la waaw ak seen lii yooyu duudu jaar wudang wang la wudang wang la wàcc ci yow benn coup deux coups trois coups wudang wang wudang wang ba ba nga tas tara mu jël ay paquetu liaas jox la nga dugal sa euh, sa poche après may foofu kooku mooy El Hadj mooy liggéey loolu moo koy préparé donc duudu ka caga international la mais bureau bu muy liggéeyee mi ngi nekk euh, fële ca bureau derrière benn bu muy liggéeyee mi ngi nekk derrière impôt et domaine donc Doudou Ka bu dee liggéey bu la woowee bureau bu nekk derrière impôt et domaine foofu liggéey la waaye bu la woowee Sacré-Cœur cité CPI foofu da lay wurang wang kon bépp jigéen bu bu la wax ni ma ngay wuyu ji Sacré-Cœur cité yi mooy dañ koy wurang wang tey ci guddi waaye bu fekkee daf la woo fële ca bureau derrière euh, bureau bu mu am derrière impôt domaine foofu nag moom bërëbu liggéeykaay la waaye bureau bu mu def spécialement pour wudang wang boo xam ne foofu El Saara fa toog di xaar ku ñëw mu raxas ba mu rafet ne la acca defaral bagage yi nga defar xëy na nga sax nga nga nga diw ci euh, pomade wala nangam en attendant duudu ñoom ñëpp nag dañoo feros ñi ngeeg ay pomade yi saf-saf ñu ndaw yu day nii yoo xam ne dañ koy yëngal génn seen bagage yi à une heure wala trente minutes piis ko ba mu saf-sap nga xam ni muy jàmm pour pour ñu wurang wang la ñoom ñëpp ñu ngi yore ay pompe yu ndaw pompe yi yu ndawam pompe yi yu ndaw yu ndaw jël seen tuuti yi ci cëg cëg ko sax dóor mu baax cëg cëg cëg ne ko nii maase ko seen tuuti yi nii la toll ñu maase ko nii ba mu saf-sap sap ñu bàyyi ko noonu 30 minutes une heure de temps boo xam ni boobu la Sarr préparé na cage ji ba mu rafet di xaar duudu foofu en attendant affaire ba wow def ay xam nga yëngal ko affaire ya nga xam ni euh, bu bu ñu dóor seen jaanu biir du gaaw a wàcc donc ngeen préparé yëng cage ji yeen cage ji ngeen motu ñi ay sacc lañ waaye kuñ ci japp balaa ñu la jox alalu rew mi du sen alalu bay du sen alalu yaay du sen alalu ndonn du waaye balaa ñu la ñam ah pompe yoy mom dinañ ko dur ci sen tu yeengul ko moom ki mu def une heure temps minimum dina def 30 minutes ci bagage yi dóor tak tak tak tak mu saf sap di yeengal wala bala ñu ñew fekk affaire ba daf na effet moo tax buñ dañ lay yulli wulli tulli ba nga tass tasar après ñu bayila fa jël alagu bu ne gañu yu seen bàyyi yaay yaay bàyyil fii muy suñu liggéeyu ndey di suñu impôt bàyyi di suñu taxe maam ñooñu la ñuy jël jox caga ja mu dabax dabaxi dem fomp bagage wala raxas ko taxawaalu donc nonu lay faral di démé donc ngeen japp ko dudu euh bureau bobu nonu <laughs> nga xamni moy bureau auberge bu nek ci sacré cité CPI ah ngeen moytu ko bu baax ñom ma cuucu ay nit la yo xamni ñom ñepp ñi ngi yor pompe bobu diko tiastasi diko tiastasi diko castasi yëngal ngeen moytu bu baax pompe bobu yeen tiaga ji ak lu ngeen bëgg xaaliss yëpp bëgg confort bëgg am ci auto ya bëgg am te nangul leen liggéey ngeen moytu bu baax ndax ñom tamit duñ jël alalu askan malgré dañ ko sacc duñ jël di leen ko jox nonu bala ñu leen koy jox seen taat yi dina def tasar seen mbuusu ndox bu donc ngeen moytu leen bu baax te xam xaalisu askan wi la waaye leen ko joxee noonu ci maali foro ngeen yóbbu ko seen taat dina tàng jër jër jër ba ku leen gis ngeen tas tasar tasar tasar ba ku leen takk du fa fekk dara dara dara kon nag ngeen moytu loolu ah, ñoom ma cuucu yeeg ñooñu ñëpp noonu lañu mel te ah, ci yor pompe bi voyagé wut dara pompe boo leen ko weddee dem leen laaj am Amsatou Sey xam na ci pompe boobu moom la Aly Ngouille Ñambi Ndiaye yor moom tamit moom la Mathiou fay yor <laughs> ñoom un pierre deux la mun nañ laa dóor te ñoom du ñu soli capote lu leer laay wax la duñu sol capote ñoom waxuñu dara ci capote ñoom ñoom gars yi dañ leen moo tax gis ngeen Mathiou fay lu mu am ci doomu biiral buñ doon sol kapot kon tey duñ fuñ dem bàyyi fa donc ay nit la yoo xam ni mun nañ laa jox am na am na benn jigéen boo xam ni contacté na ma fii wax ma benn autorité bu ko wurang wang bàyyee ko benn feebar après te moom daa yor njabootam doon jogee ba France di ñëw fii autorité bi di ko daggal billet muy ñëw ñu koy wurang wang te de jamono ji nee na dafa feebar te autorité boobu de la république moo ko wàll feebar boobu ba jox ma tur bi ak sant kooku noonu pour ma dem euh, ñu xool parce que da ko bloqué partout donc loolu ngeen moytu ko waxna ko ko mais xam nga rek gelino man dama la wax sam problème nga may xass man ko no xassuma la parce que docteur après la mort la ba ngay dag ba lay avion bie ngay jogé ba Paris bay fa say njabot di ñew ñu lay wurang wang di lay wurang wang ba bal la febar ba ba nga démé ba jommi ba jaxlé ba am autorité ba wal la febar ba mëno ñew ci man nan ma ma dem waxal la ba mu bloqué sa ñaari numéro ba muy neex safkani ya nga fo won tok donc mënuñu la wal nga ñëw ngeen man ma dem doon sa ben euh, émissaire bu ngay yoni pour mu lijeenti la lolu man dal ma lay mastaw di lay wax ni ah nga gorgolu fajj sa bagage bobu parce que <laughs> loolu moom mënuma ci dara parce que comme na ngeen di mun a ubbi seen ndarpaan ni autorité de la république sax suñu milliards jox leen ko di leen wurang wang nonu sans protection lolu mom yow sen sen connerie la donc man mënuma ko euh, na voilà wax ji mom day leer duma dugg ci lolu

léegi ñu demaat ci ki nga xam ni mooy Abdou Karim Fofana Abdou Karim Fofana waxoon naa leen euh, moo doon ubbil Mor Ngom portam moo doon yor saagam moo doon ubbi Mor Ngom porte bi porte bu Mor Ngom moom mooy daw ubbil ko bi moom moom moo koy téyel saagam waxoon naa leen Abdou Karim Fofana moom da doon yeewu nekk wetu euh, euh, cité bi nga xam ne mu ngi jàkkaarloog fi nga xam ne moom mooy si cimetière Yoff am na benn ngandamaami brique boo xam ne brigu Abdou Karim Fofana lañ ko wooyoon foofu lay toog di capter euh, euh, wi fi koñ ba butigu euh, Diallo aussi wax naa leen ko foofu la doon morojoo kafe bu fukki dërëm donc tey jii multimilliardaire la Abdou Karim Fofana dëkkatul sax foofu maa nga dem dëkk ji fi nga xam ne moom mooy Euh, Fann Résidence donc euh, <laughs> voilà ñoom jël nañ suuf si yëpp séddoo nañ lépp bàyyi ñëw moo tax révolution bi day tàng jël dañuy nangu ji lu ñu moom loolu révolution nangu lu ñu moom la tudd faqati lu ñu moom faqat lu ñu moom donc préparé wu leen ñu dem jël suñu kër yi ñu dem jël suñu terrain yi ñu dem jël suñu alal ñu dem jël suñu pouvoir nangu ko jox ko ñi nga xam ne ñoo ko mérito donc préparez-vous bien incha allah ci jaay ko tu euh, Euh, ruu ruuyu xale doon multi ay multimilliardaire na ngeen di baax cité Djily Mbaye foofu euh, benn brique ba nga fa ba léegi foofu la wifi toog di capté wi fi gars yi foofu wi fi koñ ba ah, di di di morojo café bu fukki dërëm wala café bu 75. donc ngeen Sarata doomu Aïda Diallo dem leen laajal ma wuti gambi. waaw lum don wuti gambi. Abdou Karim Fofana moo koy wurang wang Sarata doomu ayda Diallo moo koy wurang wan moom nag ba bu ñu mujj Abdou Karim Fofana woo na ko fi ne nañ daje Gàmbi pour ñu wurang wangante fa Sarata ne ko non lan moo tax mënuñu koo defee fii Ndakaar mu ne noo autorité de la république là ponkal la fi duma jël càgga di len duggal ci hôtel yi ndax mo la mo gën ma nga ñi reub ma ngi ñuy dàqe te ay nit yo xamné ay dëmm yo xamné ngay an da nga len di romb sax ndekete mo la len yoni jamono ji kenn nekatul euh, ci jamm jamono ji ben autorité ñemetul dugg ci hôtel yi ben autorité ñemetul and euh, ak jigen ndax <laughs> ku doy war la ko xam lu way def mu lokati la man munuma la Irée Ndakaaru mais Gambie mom c'est sûr et certain euh, rëbb dëmm mola bi yeggagul fofu donc waxon nañ leen ko waaw bokk na ci ñi Wurang Wang Zeyna Ndour loolu waxon nañ ko si vous vous rappelez très bien cité Djily Mbaye donc mu ndaw si non la ko convaincre ndaw si euh, jeudi trois heures du matin mom Sarata euh, jógee fofu quitter Sénégal dem Gambie dajé faak ki nga xamni moy Abdou Karim Fofana. def nañ fa ñaari fan mu wurang wang ko fa wurang wang yu tara tara tara ñaari fan suñu ministre bi seey kenn gisatu ko kenn déggatu ko moom Abdou Karim Fofana boobu mu nga tëju woon ca hôtel ya ca Gàmbi di wurang wang ki nga xam ne mooy saarata di doomu Aïda Diallo ba mu paree nag ah mu jël maletu xaalis jox ko kii di Sarata alal gu bare bare bu ñu paqueté paqueté liquide mu jël alal gu bari bo xamni vraiment euh, sama gars ñu ndax mi ngi ci ba ñu jox ko mu jox ko Sarata. lool nak fekk wali fa def concert wali sek fa def concert donc mu ñew un concert Wali. ba am ay xaritam kenn ki Mama Diva kenn ki Gigi ah won nañu mom ci soirée wali sek bobu xex bu voilà parce que daf leen di euh, déjà ba muy joggé fofu di dem pour dem rencontrer Abdou Karim Fofana ah waxoon na ko ñoom xaritam yi di Mama Diba waxoon na ko ñoom Guigui mais ñoom ñëpp dañ ko conseillé woon bul dem bul dem mu dem fa. donc ba mu fa demee it soirée Wally Seck ba fekk na fa ñoom tamit ñoom Mama Diba ak ñoom Guigui ah, raag nañ fa benn raag bu doy waar bu tara tara tar ndax daf fa la indi maletu xaalis ne ki nga xam ne mooy Abdou Karim Fofana moo ko jox. donc loolu mooy le euh, ay soirée de jambes en l'air la deux jours de jambes en l'air ci hôtel yu haay parce que Abdou Karim waxoon na ko boo ñëwee Gambie ma wut hôtel bu haay ñu toog fa xam nga parce que mooy bu mu ko waxee pourquoi pas au Sénégal mu ne ko non Mollah nga fa ay ay radaram moolaa mi ngi fa ak droneam euh, damay bañ mu yulli wulli tulli ma mu brigade bu pub ñu dajale ma yóbbu ma fa ma am ay problème donc Gambie lañ dajaloo fa lañ dajee mu wutal fa hôtel bu high level donc benn je sais pas cinq étoiles peut-être donc foofu lañ dajee ah, ñu def benn partie de jambes en l'air de deux jours de wudang wang républicaine soirée arrosée yoo xam ne ay juutal ak ay yéegal ta tànk ay aj tànk ay takk monotot lépp am na fa ci ñaari fan yooyu tàng na fa jër jër jër jër jër jër jër ak ah, ñu jox ko en retour moom Abdou Karim Fofana en liquidité jox na ko benn li nga xam ni moom mooy euh, maletu xaalis euh, ne ko yóbbul sa yaay ko liggéey sa sa ko bàyyi la voilà loolu lépp ci dans la république du Woudanguang donc yii bu ñu leen koy def mooy pour ngeen euh, xam ni ngeen préparé wu xam ni ñi ngi fooyee suñu xaalis ñi ngi lekk suñu xaalis ñi ngi caaxaanee suñu xaalis ñi ngi wëndaaloog suñu xaalis ñi ngi mandee suñu xaalis ñi ngi juutal xalé yi ci suñu xaalis ñi acc tànku xalé yi ci suñu xaalis ñi fay ay hôtel ci suñu xaalis donc lool lepp dañ leen koy def pour ngeen préparer la révolution pour ñu fippu nangu li nga xamni ñun ñoko mom ndax sonn nañ dam nañ tay nañ au moment où ñu tekkiwul dara ñi ngi jël suñu alal diko fowé diko di di ci def lu leen neex di ci wëndaaloo donc ngeen préparer wu à ça donc lool yépp pour préparer la révolution le Wudang Wang nak mom benn xale bu jigéen intéressé wu waaye ay autorité lay topp ay autorité te autorité bu mu jàpp dina la enquête topp la brigade buub puub fépp foo leen puub di ngeen ko buub ak koo leen mun a àndal parce que des fois dañuy ñëw jàpp benn autorité de la république pour mu buub ay puubam mu ne puub yi puubuma ko ñu ñu dem jëli ku mel ni euh, comme nu leen ko waxee am sata sëy bi nga xam ni moom daf dafa puub parce que autorité bu ñu jàppee tey bu ñu jàppee ah leen njàmmi euh, njaay mu mu ne moom dina buub puubam waaye puub yi sew yii wala puub weex yi puubuma ko ñoo ko buub mu ku ko puub mu ne am satu sëy moom moo ko buub donc am satu sëy lay dem wër jàppoo ne ko mais yow Ali nee na moom yii la puub yii puub puub yu weex yi wala puub yu jaune yi wala puub yu am ay doomu màdd nee na moom màccul màdd ba di puub donc rek yi dem jëli am satu sëy ni ko kaay nga buub sa puub yi puub yi am madd yi eh, moom aali nguy ñaam mi njaay nee na puubu ko wala puub yi am daqaar doomu daqaar yi nee na moom puubu ko donc yow am satu sëy kaay buub say puub donc loolu moo tax boo leen gisee seen tur yi ci biir mooy ñoom it dañ faa puubaale dañ fa puubaale waaw donc ngeen jàpp ne daal kuñ ci indi rek <laughs> di nga buub say puub aali moom buñ ko jàppee mu ne puub yi puubu ma ko yi laa puub puub ne ko buubal yi bu amee yeneen nit damay woo ki mu wax ñu dem indi ko mu buub ay puubam donc noonu lay feeñee donc da ngay dégg ñuy wax ay Aly Ngouille Ndiaye ay Abdou Karim Fofana kon buñ taqee Abdou Karim Fofana mu lekk suñu alal puub ko fenn lu tax ñuy buub puub parce que la ñu lekk nit mënoo puub te lekkoo donc suñu alal gu ñu lekk lañuy ñuy puub buñ ko puubee dañ koy jël ñu buubaat puub yi ñu xool fu ñu ko sotti donc loolu mooy opération rëbb dëmm brigade buub puub puubu jàmbur suñu yónnewu ci waaye boo sàccee suñu milliards warax ko wan puub ko puub yooyu dañ lu la jàppee da nga ñëw buub say puub yóbbaale léegi bu fenee ab sab caga nga for à droite ngeen di wu wurang wang moom tam mu puub fa ah yoon la ñu laajte mu ne ah man de saarata puubu ma puub yi moo laa saarata moo puub puub yi ah saarata nga fi defoon mu ne waaw ma dem indi saarata ne ko saarata moom Abdou Karim Fofana nee na wala Zeyna Ndour moom Abdou Karim Fofana nee na puubul puub yi yaako ko puub nga buub say puub yow tamit donc noonu la demee donc loolu mooy les dégâts collatéraux mooy ñi nga xam ne dañ dañ ñëw dañoo sàcc suñu alal joxaale leen ci ñu puubaale fa donc loolu moo tax dañ leen di jël ñu buubaale seen puub yóbbaale voilà fii xaj yi sax bu ñu puubee dañuy buub borom borom xaj bi day buub puub kon donc mënuñu jàpp ay autorités yu sàcc ñu war a buub seen puub ñu bàyyi leen noonu ñu puub buub seen puub kese bàyyi fa seen puubu gel yi wala seen puubu càgg ci donc brigade buub puub mi fi di wër di jàpp di leen yóbbu ñuy buub seeni i puub yóbbaale seen kër ndey yi ak seen kër baay yi nga xam ni seen bàyyee leen bàyyi ñu rëcc di taxawaalu ñu leen di jox suñu alal ñu koy sàcc di ci lekk di ci puub di ci buub di fay ay appartement huit cent mille di yore ay euh, Ford euh, euh, Velar di di wëndaaloo ko taxawaalu ñooñu ñëpp dañ leen di embuscade opération rëbb dëmm brigade buub puub voilà donc ngeen jàppee noonu jaar na Vous savez sëy waxoon aussi mi on vous l'avait déjà dit abi si vous vous rappelez très bien abi euh, euh, la famille Faisal. abi la famille Faisal, Timbo Gassama et Tchog et Diag dans la République bananière Les Sénégalais, Sénégal ont dañoo gaaw ci kii dafa donc abi mi. kii mooy Abi Sey kii nag baayam moo nekkoon directeur u SAIB moo tane woon maram fay Abi moo tane woon vraiment mi ngi nii ak bëñ bëñu Jurbel euh, euh, yi ak bëñu Kaolack yi ñoo xaw a nuroo gis nga kii mooy Abi Sey Abi mi ngi nii wax naa leen Marème Faye dafa rasta ñoom ñëpp ay rastamaan lañ ay rasta women gis nga abi abi dafa rasta Marème dafa rasta ñii na ñoo toj Jurbel ci jamono jooju ñii dañoo toj Jurbel foofu lañ tuddee Marème fay Sall oyof sër Marème fay Sall Jurbel la jëlee tur boobu oyof sër mi ngi doon ànd kii ngeen di xoole mooy Abi Sey Abi Sey ak oyof sër ñii ñoo nekkoon ak gang boobu ah di wëndaalu Jurbel di toj Jurbel di toj ay ay bagage ay ñaari rondel Jurbel ñaari rondel ci suuf donc ñii kii mooy Abi kii nag baayam moo newoon directeur SAIB ñu doon liggéey ñu baayam nekk SAIB ñoom ñu dëkk biir SAIB kii laa leen waxoon ni moo tane woon Marème fay bu ñu doon dem soirée kii Abi moo doon abal Marème Sey ay Marème Faye euh, oyof sër moo ko doon abal ay string moo ko doon abal ay slip moo ko doon abal ay belefete ndax Marème Faye dafa dëgëroon ci ñoom parce que ki nga xam ni mooy Omer Seck moo takkoon yaayam ñu affecté leen euh, urbanisme moom Omer Seck yóbbu fa euh, yaayam muy Oumiatou Diallo donc kii dafa rasta Marème Faye dafa def ay rasta waxoon naa leen ko fi si bu fi ma ne Marème Faye def ay rasta lu waral loolu moo tax ki nga xam ne moom mooy Ameth di Samuel Sarr bu muy wudang wan Marème fay dafa buddi woon benn rastaam ba ba Marème fay doon ko laaj sa ana sama rasta ba mu ne ko non dama koy denc bii dama koy garder dama koy garde souvenir la donc bi nga xam ni Macky Sall jàpp na ki nga di Ameth di Ameth Sarr dëgg door ko ci kaso bi Ahmed woo na Marème fay na ko boo leen ma gaawul génn fii ma génn rastaba sa rastaba yaa ngi koy fàttaliku sa doomu rastaba ba may dóor di la wurang wang bu buddi sa benn bu rasta bi ba léegi maa ngi ko téye te naa la ko duma la ko jox maram naan ko jox ma ko mu ne ko duma la ko jox maram naan ko ngir yàlla mu ne ko duma la ko jox dama koy garder souvenir donc Ahmed Sarr multimilliardaire nekk ci pétrole bi ay bateau pétrole di wàcce bato pétrole Sénégal ni nekk ci courant bi nekk ci électri électricité bi kooku nag Samuel Samuel bokk Samuel Sarr bokk Macky Sall tëjee ca kaso ba loolu la wax Marème fay na gaaw ne mu génn ma balaa maa génne sa karawu rasta ba mu ngi nii ñoom ñii ñoo doon ànd ñoom ñëpp ay jënki women lañ woon ay rasta lañ doon dóor ay bandi lañ woon ñu ngi nii gis nga rastaam ya Marème tey noonu la defoon ñoo doon ànd ca Diourbel nekk suba ngoon guddeeg bëccëg loolu moo tax Samuel Sarr bu mu toogee jouru tam xarit la ñu toog xaalaatu ko sax ubbi bunte yàmbalang ca kaso ba na ko génnal cakas bin bin cakas cakas jigéen bi mu ne dof leen gën a jàpp leen woonaa oyof sër nee naa ko boo leen yeexoon rek ma génne rasta ba ca bu ma koy wuraan wang ba buddi rasta ba ba léegi maa ngi ko denc kon boo leen laajee Samuel Sarr ana rasta oyof ba mun na leen ko génneel benn la nag du ñaar du ñett benn la yor benn rasta benn rasta la yor donc kii lañ ñëw ci moom waxoon naa leen ko tamit voilà mi ngi noonu euh, muy doomu ndayam di maam abi sëy maam abi sëy nag ak maram fay ñoo woon ca Jurbel di wëndaaloo ko taxawaalu di di kii nag moo tàngawoon maram fay moo ko doon abali string bu ñuy dem soirée ay coquette ay ndoket et cetera et cetera parce que maram dafa metti woon loolu ci moom metti loolu ci ay famille am léegi kii ci famille kotaawu famille fay bi la waa famille fay ak waa fami sàll Macky sàll bo len xolé bu baax ay frère am yu bokkal ndey ak bay presque kenn nekul ci nguur ki maram fay mo dak bepp fami Macky Sall Macky Sall amna ay frère ñom adi ñu mbokal nday ak bay amna ñu ñom ñep mais maram fay mo mo len buggul mo buggul fami Macky Sall kenn nekku ci dara lepp li nga xamni ne nguur gi ñing ko yor c'est la famille fay qui dirige ay frère Madame Fay, ministre ay frère Madame Fay, directeur ay frère Madame Fay, milliardaire ay frère Madame Fay. gagner un marché ay frère maram lepp c'est la famille Fay. ñoy diriger Sénégal parce que laj leen Macky Sall ana ay frère quatre fréram yu mbokal ndey ak bay gisul leen ci kenn kenn mo fi néwon Aliou Sall À Faye moko liquider Aliou Sall ak taal Aliou Sall Marème Faye moo ko fi jëlee moo ko jëlee sax géejawaay moo ko jëlee géejawaay Macky sàll frère yëpp kenn nekku ci dara Marème Faye leen dàq musu leen bëgg musul bëgg seen yaay wax naa leen seen yaay dafa bañoon tama Marème Faye bu dàq pour dàq yaay yaayu Macky sàll pour daq hmm, yaayu Macky sàll ca Fatick këram day ñëw indi lu ay gars yi tëgg tab rong dang dang yaay ji daw génn muuru daw génn kër ga ay gars dañuy ñëw bu ñu ñëwee bu ñu bëggee yaay yaay Macky Sall ñëw dañuy dem ne ko gars yi jóge nañ fa. Marème Faye bu ganam yi di ñëw noonu rek la doon dàqee yaayu Macky Sall day bàyyi ba gan yi war a ñëw mu jël ay tama ay waay jékki yow rong dang dang rong dang dang rong dang jékki ci biir këram rong dang dang xoolal yaayu ndeysaan yaayu Macky Sall muuru mu dóor benn muuraayam nii muuru daw génn xaw ma nag lan moo tax mais du nu doonul toog ci kër ga mukk ay tama yaay maram fay di toroxal yaay Macky Sall yaayu Macky Sall bu muuro ni daw genn daw dem kër ay xaritam tok fa di xaar maram fay nak ñew installer ay xaritam dàq yaay Macky Sall si yaayu Macky Sall gëmuloon dara yi deug deug dëgg bu baaxoon la bu gëmulun aduna ko xamni dafa dëddoon aduna te maram fay da ko don forcer pour muy sol ay yere yu bax ak ay nangam ak nangam parce que ay ganam dañ fay ñew pa da ko bëgg ay ganam ba jabaru aadi bi nga xam ni moom euh, ma euh, rakku Macky Sall bokk moom ndey ak baay aadi aadi kooku jabaram moom moo doon toppatoo yaayu euh, ki nga xam ne mooy Macky Sall mais Marème Faye dafa toroxaloon yaayu Macky Sall ba bu muy faatu yaayu Macky Sall bu feebaroon jóge Fatick bu ñëwoon doonu nekk ak Marème Faye fu mu doon nekk mooy ay parcelle kër ñoom aadi ndax Marème Faye dafa toroxal yaayu Macky Sall ba mu ne tot ba suñ jonn yàlla tey famille Macky Sall ñëpp la toroxal waaw ñoom Abdou Aziz Sall ak Macky Sall ñu bokk ndaay ak baay ñoom Aadi Sall ak Macky Sall bokk ndaay ak mais lan moo tax mu musuñu doon dara famille Marème Faye accaparé lépp parce que Marème Faye mooy baay mooy baayu Macky Sall lu mu wax mooy am mooy tëjaate mooy tijjiwaate moo tëj Abdou Karim Gueye moo tëj seen Omar Diagne moo tëj Pape Alé Niang kon fay Faye mooy bàyyiwaate mooy tëjaate Marème fay mooy bàyyiwaate ñett ñi yëpp Marème Faye leen jàppoon Marème Faye leen bàyyi Macky Sall bàyyiwu leen Marème fay moo yow bàyyi leen. donc abi maam abi Cissé mii ma Sall defu ko dara Marème fay moo ko fal Marème fay moo ko def directrice su DER la famille fay kuñ jàpp nga defaru kuñ bàyyi nga torox la fami fay kuñ jàpp nga defaru ba faw doon milliardaire waaye ku ñu bàyyi nga torox te kuñ bëgg a tëj Sénégal dina la tëj la famille Faye. donc boo leen seetaanee sax xaar ma tegal leen fii euh, frère am moo tax frère bi euh, di frère Macky Sall euh, Marème Faye nekk seen taawu kër di ma cuucu fay ak lépp lu muy def toj réew mi kenn musu ko dàq kenn ñimew ko na ngeen dee ba jeex tàkk Macky Sall amul fitu dàq ki nga xam ne moom mooy ma cuucu fay amul fitu dàq ko bu koy dàq di dee bu koy dàq di dee <laughs> ma dama ne boo leen doon ba yéen ñi faatu maki Sall amul fit ne ma jooju mu ne ko ah mu ne ko dama lay wàcc bu koy def dëkk bi tàkk madame Faye jour boobu Macky dina ko rëccu de dina ko rëccu de billahi jour bu nga xam ne maram bés bu ko mar maki Sall dàqee ma cuucu fay di yéen ñëpp mun ngeen deemee du ko dàq donc ki nga xam ne maam Abi Seye rasta wu ñu jël ko nag def ko directrice DER sénégalais yi ndeysaan jàng bané ne ar ñii jàng ay montage projet ñi nangam nangam rey seen bop projet yi ngeen di yobbu fofu yëpp c'est la famille de mu cuucu fay ñoom ñoo jël projet bu ci bax jël tous les projets innovants que reçoit la DER à la dañ koy remettre à la famille de Marem Fay Sall fay ils font semblant de financer les femmes qui ont des micro-projets à hauteur de 500 000. en absorbant les projets des Sénégalais ils les mettre en attente de exploiter euh, leur projet dans un cercle privé. Donc, projet boole Marème fay ak ma cuucu Faye la famille fay Sall Sall sax nekku ca dañoo yëpp la famille Sall rek mais la famille Sall kenn nekkul ci état bi la famille fay Timbo gasama donc ñoom maam Abi Sey day dajale projet yi am solo yi sénégalais yi déposé foofu yu am bopp ñu jël ko xam ne projet yi xel sénégalais yi dañoo jàng ba ne arab wër àdduna bind ay projet noonu la koy dajalee nii ba mu mat ñu dajal mu dajale ko ba mu mat mu jël ko nii mu dajale ko ba mu mat ñu yóbbul ko la famille kii ñu la famille mafia fay ñu xool projet yi kii bind na lii kii bind na lii ñu jël ko ñoom moom la ñuy exploité moom la ñuy exploité mi ngi nii. donc ngeen jàpp ne abi maam abi sey mii projet yee ngeen di bind di ko fa yóbbu ah projet yu bëri dañ leen di mettre en attente seen projet yooyu ma nga ca kër ñoom Marème fay ña nga dajale di ko teg. di xool nan lañ koy exploité nan lañ koy joxee seen i euh, bras droit nan lañ koy joxee seen i blanchisseur d' argent pour ñu exploité projet yi nga xam ni ñoom du ñu xalaat seen xel nekku ci lijjantiw ci dañuy nelaw ba yàndoor ngeen jël seen projet yu mag bien ficelé jox ko maam abisé yi ñu xaarloo leen jël projet yooyu yóbbu ko ci cercle privé ba cercle euh, privé bu fay ba waxtaan ci kii ko jox ko seen i doom wala seen i jarbaat ñoom ñëpp projet yu ñu yor yëpp ah yéen a koy bind kon ndog ngeen def beaucoup attention ci DER DER boobu ñu leen di wax noonu ah <laughs> boo dul politicien wala ñu ragal la duñ la financer te projet noo ko mën a bindee des mois et des mois yi ngeen passé bu yeggee DER vraiment la famille Mathioutou Faye ñoo koy exploité en faisant semblant de financer les femmes euh, qui ont des micro projets à hauteur de 500 000 francs yu tekkiwul dara li ci des yëpp ñu jël ko mettre la en attente yow mi am xam-xam ñu jël ko c'est la famille fay euh, ñoom ñoo koy exploité donc di leen xamal ni kii nga xam ni moom ñoom ñoo ko fa teg ko ngeen jàpp ko famille bu doy waar la ñoom ñoo fa teg maam abi sëy day ay mooy rasta yi ngeen def ci beaucoup attention donc lii yëpp lu koy dindi nag mooy jóg xeex kese moo ko mën a dindi leneen mënu ko dindi ku jógul xeex ah <laughs> doo doo doo ci réussir parce que information yi mi ngi fi ñi ngi leen di wax ñi ngi leen di jox euh, mais da ngeen wara a euh, gën concentré wu da ngeen wara gëna nekk ci affaire yi euh, voilà donc ngeen japp ni audio bi après d'ici demain inshallah parce que xamna ni nu man ma parce que des fois day gudd man nu ma koy daggé la donc té man ben sama ben élément la ka jox mu dagg ko parce que man mënu ma ko dagg mais xamna ni nu mu ko daggé mo baxul mais suba dina len jox ojo bi incha allah nu mu ma ko daggalee moo baaxul maa ngi excusé wu ci ojo aji saar bi suba incha allah dinañ leen euh, dinaa leen tegal audio aji saar bi ba ba mu mat sëkk maa ngi ci tuub di jégalu donc nu ma ko nu ma ko daggee nu mu ko daggee nu mu ko daggee parce que man dagguma ko nu mu ko daggee moo baaxul donc ngeen jàpp ni daal lépp lu ñu ci jublu luñ ci jublu euh, moom mooy ah, lu def waxu lu ay di jàmbat lu def waxu lu ay di jàmba doomu aadama mënuñu fi nekk di sàcc suñu alal di ko foowee di ci tëdd ay caga ba pare te duñ leen wax loolu intouchable amu fi lu def waxu lu ay di jàmbat ku buggul dégg sa tur dawal kuñ ci woo caga ji kuñ ci woo nga moytu bu baax ndax lépp lu fi eh, defu dina waxu donc ngeen jàpp gum loolu euh, te Sénégal comme nu ma leen ko waxee dara mënuñoo tere bañ a wax dara mënuñoo arrêté kooku moom dalal naa seen xel nee naa leen euh, ma la famille Faye euh, c'est vrai taq nañu rëpp ak libanais yi ci euh, blanchiment d'argent libanais yi ñoo gën a mun a blanchir de l'argent sale au Sénégal parce que dañuy yëngu ci commerce dañuy yëngu ci ay exportation ceeb ay diwlin ak extra extra te ñoom Marème fay ay milliards lañuy milli milli milliards lañuy donc il faut ñu am ay bandi yo xamni leen mëna jox té ñoñu moy nar yi euh, euh, terrorisme donc ñom maram fay dañuy jël milliards Sénégalais à travers leur fondation ak euh, leen Sénégal gagner marché da ngay nekk wala jàgg Marème Faye ñu jox la ci marché yi et cetera et cetera donc wax nañ leen ko euh, ki nga xam ni Jurbel euh, boobu nag ñoom marem fay dokkuñu fa woon waxoon naa leen faram boobu di Xalil Naar samay samay live nag fépp lay dem jarul ngeen di wax moo wax na musuma wax te dagguñu ko tasaare ko Sénégal Macky Sall sax day seetaan live yi amul benn sénégale boo ko dul seetaan benn sénégalais maa ngi yëngal Sénégal maa ngi bouger loo Sénégal maa ngi boyal Sénégal loolu moom leer na leen naññ naññ parce que gis ngeen lu def waxu lu ay di jàmba dégg ngeen géwéloo mbaay bi nga xam ne moo nekkoon ñun boobu judduguñ sax mu nekkoon géwélu Abdoulaye Abdou juuf nga xam ni dund ci lu salte rek la ñuy dund dégg ngeen ko mu toog ba ci tele ah Pa Mansour Mbaye naa ca dëgg dëgg dëgg ca dëgg dëgg ko rek ko nekk Canada soxla lañu ay ca dëgg dëgg dëgg duñu liggéey duñu gor duñu yatt yor ay kër yor ay oto sol ay ñetti grand mbubb di wëndaaloo ko taxawaalu loolu boo ko waxoon tubaab mu ne la kii nan la def ba tekki Sénégal rek la am ay nit yu toog naan griot traditionnel di yéegal ay ñetti garam bu aywa cënag dëgg la ko cënag dëgg la ko cënag dëgg la cënag waay waay waay kii du morom yàlla ngi nii yàlla wàcc na waay ay ma gis Abdou Diouf Abdou Diouf yàlla la Abdou Diouf yàlla la maamam yàlla la yàlla la am ci nga ndam maami kër am ay koñ ba koñ ay kër am junni terrain juróom-ñaar am ay oto yu tooy xëpp yor ay chauffeur yor ay milliards ci ay cologodogo cologodogo cologodogo <laughs> loolu Sénégal rek la am loolu boo ñëwoon fii ci tubaab ya ma ma am ak problème euh, géwéloo mbaay euh, tubaab yi tubaab yi dañ lay jàpp yow géwéloo mbaay nokk ci kaso yi parce que dañuy xool ne nan nga def ba doon milliardaire nan nga def ba ami kër nga def ba oto nan nga def ba dooni chauffeur nga ne musuma liggéey sama giir dund ñu jël la nokk ci kaso bi moo tax yéen nekk leen Sénégal rek di fooye Sénégalais mais fii seen pexe du fi dugg ndax boo leen fi duggoon ci lépp luñ dem procès ma noqu leen parce que ay sàcc ngeen ay fenkat ngeen ay moykarien ngeen nangu leen liggéey waaye tey bu ñu demee ba Sénégal ku mel ni paa boobu noonu toog ne lu tëdd ko dugg moo laa sonal la ñu bay ay way booy bu nekk Canada te ba ba ngay dee chômeur ngay doon donc yow <laughs> njëriñ amoo ko ci Sénégal askan askane woo lu baax doo ko baax <laughs> paa doo ko baax mu góorgóorlu nga liggéey liggéeyil su mil sa ñetti garaam bi nga futtee ko ba set te dem liggéey bëgg nga lu yombu say morom paa ni yow dañoo liggéey ba am lu ñu am yow ngay nekk di mar rek aka taxawaalu aka wëndaalu aka laate di wax ay maamu jàmbur ay baajanu jàmbur loolu mooy sa liggéey te loolu du liggéey loolu defarul Europe defarul Amérique defarul Asie defarul Australie ñu fa nekk ay paa la ñu mel ni yow ñu doon takk ay dàll di ñafe di góorgóorlu toog ñu di tagg maamu kenn pour am oto pour am kër kon nag mon père jógal dama sangu ji futte sa ñetti garambu bi takk sa dàll dama liggéey. dama liggéey loolu laa lay conseil nga liggéey nga liggéey yow say morom yi mel ni ñoom bay peex say morom yi mel ni gunóori de la république say morom yi mel ni les saxu douce de la république dem leen ngeen liggéey dem leen ngeen liggéey seul. seule la lutte libère mais seul le travail paye kon dem leen ngeen liggéey gémmiñ wax ba ba du liggéey tagg ay maamu jàmbur du liggéey donc ngeen jàpp ni maa ngi yëngal jamono lu waral lool nag lan moo tax mu wax parce que xam na ni maa ngi ñëw ci Farba ngoom te moom doomam doomam euh, ak ba Ngom euh, vraiment moo laa ngi yow dal seen kaw euh, booy bi matal na ma ko ah, yónnee na ma sama booy bi nen nu ko daggee moo baaxul xaaral ñu teg ko kon audio complet baa ngi nii xaar ñu teg ko booy bi daggalaat na ma ko ñu teg ko gars yi ba baal leen ma ah sànq booy bi dagg mi ngi seetaan live bi daggal na ma ojo bi donc moo laa ngi ñëw da leen woy lool rek boo leen gisee autorité nee leen ko bu leen ko yuuxu bu leen kii autorité boo leen gis muy bandi bandilu yor ñetti grand boobu naan nii yéen woy leen lii rek moo laa ngi ñëw laa ngi ñëw eh moo laa ngi ñëw dal seen kaw day daw wéy billaahi bu génnoon ci oto nii nii di bandi bandilu amul ay sonko ngi ñëw sonko ko daf ci upp moo la loolu maa ngi boy sant bépp booy autorité bo leen gis mu ñew seen gox sol ñetti garam bu bëb di bandi bandu lako ko wéyu lu di cakas lu, ne wayal leen ko rek moo laa ngi yow mola laa yow moo laa yow ne dal seen kaw moo laa yow moo yow yow dal seen kaw préparé wu leen dal seen kaw xalé yépp jang leen loolu moo laa ngi ñëw autorité boo gis de la république buy wéyu wéylu ka band bandlu ak a band salta ak a wéyu wéylu nee leen ko rek moo laa ngi ñëw billaahi dina daw bàyyi leen fa du fa jage du fa laal <laughs> du fa laal danaan day daw même bu doon ñolo solo si day dox tànk da koy dëgëral parce que daanaan moo laa ngi ñëw de même bu xam nga da nga gis ñuy dox nii mel ni ko doon laal suuf naan nii koo ci ne moo laa ngi ñëw coccale la de rubo moo laa ngi ñëw comme carrément dal parce que moo laa day wàcce day wàcce moo tax kon ki ngeen géwéloo mbaay ga ngeen gis noonu muy <laughs> parce que damay ñëw ci Farba Ngom te doom ja da ca laqaale doom jaa ngi tax rëpp ca mbir ya yéen ñun ñoo leen di wili pande ba ngeen set wecc donc euh, ñu dugal audio Adji Sarr bi booy bi yónnee waat na ma ko après ñu eggale ayca let's go guys dañuy bañ xam nañ yow yaay gañ xam naa loolu dañuy bañ xam nañ yow yaa gañ. yaay bañ léegi nag xam nañ ne euh, si ñuy fekk ak man rek da nga am influence si ñoom. merci beaucoup. ñi nekk ak man it dañoo am influence si ñoom. léegi nag loolu la ñuy bañ parce que boobaa seen biir dafay yàqu léegi nag xam nga lan nga mën a def taxawal oole beneen gis ngeen man samay mbokk dañoo sonn damaa bëgg a tabaxal samay mbokk. jox ci loo xam ne ñii ci sama papa ak sama. dañuy bëgg di wax xaaral ba jeex xaaral ba jeex. loolu nag mooy boobu kese moo moo fi des li ma la wax noonu kese moo fi des. sinon dañ lay bëgg di wax xaaral ba mu jeex bi on peut pas donner de l'argent je sais pas parce que loolu lañ lay bëgg di bëgg di wax man de mais li ma duma jël appel kudul dul samay informateur duma décrocher appel bayi len wote duma décrocher appel lol waxna ko Sénégal yi dajna ñuy wote nañu yombalal sen bop ma ngi tek audio am kuy wote te wóor ci ñaari waccion duma décrocher duma wax appel man man bande cerveau la duma wax appel duma wax appel lepp ci code la lepp ci code bayi len appel yi ngir yalla yeureum sen sen jurum ñaari mam bu waccion sen arbre généalogie bu waccion duma ma appel dama am ay réseau yu wuri information ñom kessa lay décroché parce que dama leen di sante dama leen mu fi dama leen ma fe ku bëgg wax ak man na nga audio wala nga bind duma ma appel son ngeen de duma ma appel damay xeex talu may wax duma ma appel ku tek audio nak mën na la déglu buma la waré tontontu lu buma amul jot duma gi bayi mais bàyyi leen appel yi leen son sen bop <laughs> yéen da ngeen ni man damay caaxaan toog leen rek yéen toog leen rek di comprendre après xeex bi nan la demee ayca ñu demaat. waxee ñu ñëw envers toi ils vont refuser dinañ bañ. dañuy na xam nañ yow kañ xam naa loolu dañuy bañ xam nañ yow yaa kañ. yaay bañ léegi ne euh, si ñi faut féete ak man rek am influence si ñoom. nekk ak man yëpp léegi nag loolu la ñuy bañ parce que booba seen diil dafay yàqu léegi nag xam nga lan nga mën a def taxawal oole ne leen gis ngeen man samay mbokk dañoo sonn dama bëgg a tabaxal samay mbokk jox leen ci loo xam ne ñii ngatu ci sama papa ak sama. ci di wax non xaaral ba li xaaral ba li jeex. nag boobu kese moo moo li ma la noonu kese moo fi sauf si moom dañ lay bëgg wax non xaaral ba mu jeex espace bi on peut pas donner de l'argent je sais pas parce que loolu lañ lay bëgg di bëgg di wax man soo comprendre réaction bi nga nekk de mais li ma la fi wax rek moo fi sës. waaw xam nga nag loolu ñu lay xaara xaara xaara danañ la xaar loolu mais lii ma la wax denc ko ëllëg wallahi lazim di nga toog ne ay suma yëgoon wallahi lazim. mais pour l'instant damay toog fa. su ma gisee benn je sais pas studio ba dem na fenn après mais nag sama gars ne laa ko. boobu maa ngi nekk di jëm te loolu je ne sais pas je ne sais pas. ah waaw mu ngi noonu mu ngi noonu doy na waar bi mais nag garaaw yow yaa ngi dégg mbir mi ah. yaa xam lu la arrangé ak lu la arrangé wut waaye man de dama bëggoon. le tu sais le fait d'être ici non me plaît pas su ma leen woowoon tey ne leen dama bëgg ngeen defar suma waa kër bi dañuy wax ne on peut pas faire sa maintenant surtout ñi ñuy wax ay waxu complot complot loolu lañ lay wax su ma leen waxoon ne tamit dem leen wax ak suñu saree suñu kilifa bu feneen duñ ñëw parce que xam nañ am nga influence bi duñ ñëw. duñ ñëw duñ ñëw waaye ma. donc fii audio bi Adji Sarr dafa bëgg yónni MC Niass pour mu dem négocier ak ak euh, ravisseur am maanaam gouvernement bi ko jàpp téye ko tëj ko ci kaso bi mu bëgg dem négocier balaa moo toj kaas yi di wax ci seen siri bu maam yi ah mu yónni MC Niass pour MC Niass dem négocier ak autorité yi parce que te moom nee na MC bu ko loon woowoon tamit du ñu ñëw aji leen touchable ku ko neex mu ne la ñam nga ma te benn ñi ngeen di wooyee kilifa kenn sañu ci <laughs> eh, eh, porté ko plainte tudd na ñi ci tudd ñëpp tamit ay caga lañ ci tudd ñëpp eh, dañuy wudang wang di taxawaalu gis na wan naa leen tey Ali Nguy ñami Njaay gelam bi muy jox passeport diplomatique di ko fayal appartement huit cent mille jëndal ko Ford bu cher Lascris donc gis ngeen donc aji Sarr tamit waxantuwul ñamay wax ñépp wudang wang nañ ko ñamay wax ñépp ñam nañ ko te ñu ci bëri am nañ ay doomu biiral wala ñu doon ay doomu biiral waaw Antoine ñàkk jom doomu biiral la ki nga xam ni euh, euh, moom mooy euh, lu mu tëdd di ngóor si moom it taawam doo bi doomu biiral la ñi muy tudd ñëpp bugaan am na ay doomu biiral am na ñaari gel yoo xam ni xam naa leen yu bugaan biiral kenn ki ci am la sant euh, ñi nga xam ni euh, bugaan biiral na seen yaay donc bari na ñoo xam ni ci ñoom euh, kii ñaareelu jabaram tamit bugaan journaliste la woon animatrice la woon ci telem bugaan biiral ko doo ko takk donc ñi quatre-vingt-dix pour cent ñi aji saar di tudd yëpp ay doomu biiral lañ wala ñu biiralaate donc loolu moom ngeen jàpp ko donc Adji Sarr doful jina jàpp ko toxul naanu sàngara ñi muy wax yëpp dëgg la ay ñoo xam ne la seen euh, CV euh, soit doomu biiral lañ soit biiral lañ dañuy biiralaate soit dañuy wudang wang soit dañuy fooye alal donc Adji Sarr juumut ñu mu wax yëpp dëgg la jaar nañ fa ñam ñamaat nañ fa ñamati nañ fa jox nañ ko alal gu bëri donc fii Adji Sarr day négocier ak MC te li mu doon wax yëpp dëgg la ci moom donc voilà lu muy mën a fen yëpp waaye lii moom dëkk la ci moom mi nga noonu kon ay cee ñu dem aji dafa mën a fen parce que Sénégal li ñuy woowee mën a fen mooy raconter raconter moom day raconter aji dafa mën a fen nag mais loo ko def mu wax ko te autorité yëpp aji Sarr am na seen euh, euh, troisième jabaru Bougane ah yee te aji Sarr euh, am na audio bépp autorité bu ko ñam aji saar am na audio bépp autorité bu ko ñam bu dugal ay bagaasam ci bagaasu aji saar ba maanaam ca bëtu nag ya ki nga xam ne mooy Mamour Diallo it wax naa leen ko moom it biiral na benn cousine am ca kaw la kaas naag boo xam ni euh, doomam euh, vraiment euh, mun naa leen ko wax léegi tamit ah, wanoon naa leen fi photo bi ah naa leen fi photo boo xam ni voilà sama ataaya bi donc waxoon naa leen ko fi Adji Sarr baa ngi teg audio yi ma ñëw. waxee ñu ñëw envers toi ils vont refuser nañ bañ. dañuy bañ xam nañ nañ ne euh, si ñi faut rek da nga am influence si ñoom. am influence si ñoom. nag loolu la bañ parce que boobaa seen biir dafay yàqu. léegi nag xam nga lan nga mën a def taxawal oole ne leen gis ngeen man samay mbokk dañoo sonn dama bëgg tabaxal samay mbokk jox leen ci loo xam ne ñii ngatu ci sama papa ak sama frère. di noonu xaaral ba li xaaral ba li jeex. kese moo moo li ma la wax noonu kese moo fi sauf sinon dañ lay wax dama ñëwaat dama ñëwaat naa leen tegal audio donc Mamour Diallo mooy borom bëtu nag ba Mamour Diallo jàngee na Kaolack nekkoon na nag donc euh, voilà euh, am benn euh, koo xam ni tantay Mamour Diallo la nekk bàjjanu ki nga xam ni mooy mm, ndaw si mu biiral. dëgg la ma ne Kasnack Kaolack Mamour Diallo dafa nekkoon benn kër tantam léegi gel bu mu biiral kooku maire boobu bàjjanam la donc ñoom ñaar ay cousin cousine lañ donc maam Mamour Diallo ca Kasnack Kaolack mu biiral fa cousinam ca benn kër guñ dëkkoon ñoom ñaar mu koy tëddee ci biir kër ga di wurang wang cousine ba ba biiral ko ñu am benn doom doom boo xam ne jamono ji am na 30 mu tudd Boubacar Boubacar Boubacar la tudd euh, mais mi ngi koy doogu reconnaître yàgguñu mi ngi koy doogu reconnaître euh, ki mu biiral mi ngi tudd maam Ndeela Diallo maam Ndeela Diallo mooy cousinam maam Ndeela Diallo cousinu Mamour Diallo la maam Ndeela Diallo mu ngi dëkkoon ca Kasnack Kaolack waaw kër googu nag seen benn tante ak bàjjan moo fa newoon foofu la Mamour Diallo Mamadou Mamour Diallo nekkoon foofu la jàpp cousine am boobu di Mame Ndella Diallo di ko tëddee matin midi soir ba biiral ko waaw mu am fa doom bañ ko mooy Boubacar doom jooju nag Mamour da ko musa bañ donc moom Mamour tey bu bañee waru leen bett ndax biiral na cousine am ci benn kër di ko tëddee bañ ko kon waru leen bett donc vraiment ngeen gis Mamour biiral wala muy tëddee aji Sarr naan xaw ma mosuma dem suite boote moom Mamour depuis jamonoy élève la biiralaate donc kooku noonu ku yàgg ci biiral la ci biiral lu njëkk ya ci biiral lu njëkk donc ngeen jàpp ni Mamour Diallo am na doom bu am 30 ans boo xam ni bu mu ko reconnaître cinq ans matu ko waaw mooy Boubacar Diallo Boubacar Diallo nag euh, bi ko Mamour di biiral yaayam bi nga xam ne mooy Mame Ndella Diallo ah bu ngi koy reconnaître ba mu donc xale boobu dund na 25 ans 25 ans te baayam Mamadou Mamour Diallo reconnaître ko reconnaître ko. donc jàpp leen loolu kon Mamour yàgg na ci biiralaate ci bañ biiral di bañ biiral di bañ dama ne yëfu jaam la Mamour biiral di bañ biiral di bañ dama ne yëfu jaam la biiral di bañ biiral di bañ biiral di bañ dama ne yëfu jaam la donc Mamour Diallo jaam la yàgg biiralaate la kaw lag la ko njëkk a tàmbalee bañ ko donc ngeen jàpp loolu euh, ña nga dëkkoon kaw lag ca kaas nag donc xale boobu dafa dof dafa dof vraiment da ja ku mënoon jàngale ko yàlla mayoon la Sorbonne jaar na sorbon waa dafa xëy rek vraiment bopp bi départ moom Boubacar euh, jamono jii may wax ak yow nii ma Sénégal ma nga ñu yóbbu ci hôpitalu dof ya nekk Caaroy boo leen fa demee di ngeen fa fekk Boubacar doomu Mamour jàlloo dafa perte ay euh, faculté mentale am ma nga fa ci hôpital dof ya ñu koy takk ka tekki di ko tëj ka tijji kooku Mamour Diallo moo ko jur mooy baayam Euh, ki nga xam ne mooy Mame Ndella Diallo mooy yaayam ah kon Mamour Diallo ku yàgg biir laate la donc ngeen jàpp loolu ah, ca kaas naag la xewee euh, Mamour nag mooy le cousin de la femme waaw donc problème boobu buggul ñu xam ko waaye euh, ba ma duggee fii sax mun naa leen indil photo yi parce que yàgg naa leen ko wanoon naa leen ko fi ah est-ce que nekku fi sax xaaral ma xoolal leen ko vite fait ma tegalaat leen leen audio xoolal leen photo yi ok waxee ñu ñëw envers toi ils vont refuser dinañ bañ. dañuy bañ xam nañ yow yaay kañ xam naa loolu dañuy bañ xam nañ yow yaa kañ. yooyu bañ léegi nag xam nañ ne si euh, ñi foog feete ak man rek da nga am influence si ñoom. merci beaucoup. ñi nekk ak man yëpp dañoo am influence si ñoom. léegi nag loolu la ñuy bañ parce que boobaa seen biir dafay yàqu léegi nag xam nga lan nga mën a def taxawal oole na leen gis ngeen man samay mbokk dañoo sonn. dama bëgg a tabaxal samay mbokk jox leen ci loo xam ne ñii yëngatu ci sama papa ak sama frère. di wax noonu xaaral ba li jeex xaaral ba li jeex. loolu nag mooy solution boobu kese moo moo fi des li ma la wax noonu kese xaaral ba mu jeex instant bi on peut pas donner de l'argent je sais pas parce que loolu lañ lay bëgg di bëgg di wax man soo comprendre réaction bi nga nekk de mais li ma fi wax rek moo fi des. waaw ah, xam nga nag loolu ñu lay xaara xaara xaara. danañ la xaar loolu mais lii ma la wax ko ëllëg wallahi lazim di nga toog ne ay suma yëgoon wallahi lazim. man la mais pour l'instant damay benn je sais pas studio après mais nag sama gàll laa ko. maa ngi nekk di jëm te loolu je ne sais pas je ne sais pas. ah waaw ah, mu ngi mais nag garaaw yow yaay ndey mbili ah yaa xam lu la arrangé ak lu la arrangé wut waaye man de dama bëggoon. le fait tu sais le fait d'être ici ne me plaît pas su ma leen woowoon tey ne leen dama bëgg ngeen defar suñu waa kër bi dañuy wax ne on peut pas faire ça maintenant surtout ñu ngi wax ay complot complot loolu lañ lay wax su ma leen waxoon ne tamit dem leen wax ak suñu sareen suñu kilifa bi fi ne duñ ñëw parce que xam nañ am na influence bi duñ ñëw waaye léegi ñëw yow yow léegi toogal seetaan ma man danaa dugg ci mbir mi. d'accord waxee ñëw envers toi il faut. donc kii la Mamour Diallo euh, biiral mooy borom Mamour Bëtu nag Mamour Bëtu gaynde Mamour Bëtu gaynde kii moom mooy Boubacar 30 euh, la am 25 euh, ans dund na koog yaayam muy cousin Mamour Diallo di cousin wu yaayam. biiral yaayam ca Kaolack Kasnack bañ xale bi ca biir kër ga la wurang wang bi yëpp doon xewe jamono ji Mamour mi ngi koy doog a accepté il y de cela juste cinq ans mais xale bi dafa feebar vraiment dafa am feebaru xel mara day taali euh, ñi ngi koy faj euh, sorbon la jaar ku munoon jàng ku doy waar ci jàng yàlla mayoon ko vraiment capacité yu doy waar waaye xale ba daa xëy rek euh, feebar feebar topp ko mu xëy xëy na deret moom moo jege. parce que Sénégal souvent gars dañuy jël cousin cousine des di euh, xam nga direct bi euh, trop na def ay vraiment euh, <laughs> Sénégal metti la malgré mais ñun je dis juste ce qui se passe boudé ñun souvent yu papa ak yaay bi ay kii lañ mais donc Mamour Diallo gis ngeen ni mu nuróowee ñoom ñaar ñoo nuróo costume nuróo karawaat lépp ñëw ko nuróo vraiment kii euh, bu doful woon mara ndeysaan heure bi dina ñëw doon ministre wala député parce que euh, Sorbonne la jaar jàngkat la woon Boubacar mii di Boubacar Diallo ah Mamour Diallo moo tooñ yaayam Mamour borom bëtu gaynde moo jaar fii donc Mamour ku yàgg nekk bandi la ku yàgg biiralaate la Euh, ab ab cagala et cetera et cetera donc euh, ngeen euh, jàpp gum koy jàppee gum ko noonu donc voilà lu kooku mooy Mamour Diallo donc je pense audio complet bi mi ngi noonu hmm, ngeen ngeen jàppee ko noonu société wu dang wang la ñu nekk ay bandi salté ay caga drogué ay cagabaar ay politikaar ay kagulaar ñoom ñoo téye Sénégal benn famille moo téye Sénégal te Macky Sall benn complexe la am mooy dëgërul ci kanamu Marème Faye bu Marème Faye taxawee sincèrement Macky Sall da koy lem toog kon jàpp leen ni ñun euh, première dame moo ñu jiite mooy tëjaate mooy bàyyiwaate te lu ko neex mooy am donc ngeen jàpp ni ay caga ngeen yor ay bordel ngeen yor euh, dee leen def euh, lii nga xam ne mooy background check balaa ngeen di fal seeni njiit dee leen def lu ñu naan background check waaw boo leen defee background check euh, doo leen rëccu ngeen di wut ay éléments yu mel ni ay Mollah Morgun yi nga xam ni ay million lañ koy proposé mu dëdd ko ay kër lañ koy proposé à Almadi mu dëdd ko ay terrain lañ koy proposé ci euh, Géejawaay ca Filaawo mu dëdd ko ay euh, lu mu tudd passeport diplomatique lañ koy proposé mu dëdd ko gar bakkanam dee leen jël bu ëllëgee boo leen di choisir dee leen choisir ay ñu bëgg patrie bi ay nationaliste da leen choisir ay patriote ñi nga xam ne duñ leen sàcc ndax alal àdduna lu ne lañ leen tagal sur le plat ñu dëdd ko euh, kajj ko gëm ni seen patrie ñu ngeen jël ay doomu aadama yu mel ni ay Karim xrum nga xam ni la liberté n'a pas de prix imagine leen lu musul am jamono jii ay prouesse yu musul am la yenn activistes yi di def ci Sénégal man mii ci laa euh, maa fi nekk premier activiste bu taal town bi ñu paniqué wu ba dem di taal town këru samay famille donc mi ngi doog a am may activiste bu ñu jël famille am ne dañ koy cotiser pour une fois fois dans l'histoire ñu dem jóg guvernement bi jóg ak seen faux euh, profil dem ba bloqué li nga xam ni moom mooy euh, euh, cagnotte boobu noonu maa ko njëkk def waaye Abdou Karim tam def na lu ma musul def Abdou Karim rek mooy doomu aadama bu ñu libéré ne ko signéel euh, liberté provisoire boo xam ni dañ lay tegaale ay daan Abdou Karim ne duma ko signé du ko siñee du ko signé waaye am na yaay yoo xam ni ñu ngi jur ay goro am na yaay yoo xam ne ba léegi ñu ngi sukk di jur ay garmi am na yaay yoo xam ni juruñu mbott juruñu mbóot juruñu jinax juruñu kaña ay góor yàlla lañ jur ay jàmbaar lañ jur ku mel ni sama yaay ji moo jur doom jii tey bu tënk nguur bu jommal nguur buy panikeloo nguur buy tiireloo nguur fu mu war te tiire jooyu yaay yooyu ñu ja ay ñu brave lañ ñu jar a gërëm lañ ndax jur nañ ay doom yoo xam ni du jaayu du ñu jaay seen ngor ay bañkat lañ yoo xam ni kenn gëmuñu kenn ragaluñ kenn waaw Abdou Karim tamit ñu ngi gërëm yaayam di sant yaayam di màggal yaayam di ñaan yàlla na yàlla guddal fanu yaayam ndax yaayam jural nañu doom ju am jom doom ju am ngor doom joo xam ni tëdd na ci laal hôpital ba tollu ci dunda ak dee Marème Faye ñëw indi ay million mu kajj ko fële ca xaj kooku mooy Abdou Karim Gueye di la wax jërëjëf Abdul Karim man du ma la sant sa yaay laay sant ndax sa yaay moo liggéey moo lu jur sa yaay liggéey na ko sa baay liggéey na ko kon jërëjëf Abdul Karim waaye maa ngi sant sa yaay juróom bu ma la santee benn sant naa ko fukk ndax moo ñu indil kii nga xam ne mooy Abdou Karim Gueye ñëpp ba ñuy signé fële ca bureau ba ca Ndar Abdou Karim moo damm big ba ne signé ñëw ma ko ñu woo ko la lendemain ñu woo ko la lendemain mu demaat encore tribunal ñu ne ko doo signé mu ne xalaatu moo ko ba suñ jonn yàlla tey Abdou Karim moo fi defagum lu kenn musul def kenn yaayu kenn jurugu fi lu Abdou Karim def moom la yaayam jur góor yàlla goo xam ni moom la tribunal ne kaay signé ñu libéral la mu ne dee ci kaso bee ma gënal signé ko Abdou Karim moo ko def kon ñu tàccu Abdou Karim ne sa yaay Abdou Karim fu mu taxaw sama yaay taxaw fa ñoom ñaar ñu ànd seen ginnaaw bandang yaay Abdou Karim naan eh, ah sama yaay man sama dooma def lu sama yaay ne ko man sama dooma def lu amul sama yaay Abdou bu raconté sama doom lañ libéré ne ko kaay signé mu ne du ma signé sama yaay ne ko hey manit sama doom moo fi wax loo xam ne ba ñuy taal kër famille am yaay Abdou Karim ne sama doom moom rek lañ fa tëj jooyul muy dem di wuyu ji sama yaay tam ne sama doom moom rek lañ fi defal collecte ñu bloqué collecte bi kon boobu ñoom ñaar mun nañ di ànd yaay Abdou Karim naan sama doom sama yaay naan sama doom ba fu ñuy ba fu ñuy yegg ba fu ñuy yegg juboo ci ñoom ñaar ci sama doom sama doom kon nag na yaay yi góorgóorlu ay doom yoo xam ne dañuy am ay doom yoo xam ne dañ leen di a wax ñoom ñu àndee ku nekk da naan sama doom kenn du ne sama doom daa jaay ngorom kenn sama doom daa jaay daa joxe ngorom kenn ne sama doom dafa juutu kenn du ne sama doom dafa jaayu ñoom ñoo ñu mun a ànd kon sama yaay ak yaay Abdou Karim ñu war nañ xamante war nañ nekk ay xarit parce que jur nañ fa ay doom yoo xam ni Euh, macha allah ñu doom yu am ngor lañ doom yu am jom doom yu jaayul seen taat yi doom yu juutuwul doom yi teg ji lu ñu leen jox donc bu fekkee yaay Abdou Karim ak sama yaay ànd saa yi bu yaay Abdou Karim taxawee ne man sama doom tëdd na ci lal hôpital toll ci dund ak dee nga xam ni Marème fay indil ko pour jox ko mu dem faju ji sama yaay ne ko man Marème Faye woo na ma ne ma kaay wuy si pale sama doom ne ko na ma bul fa teg sa tànk boo fa tegee sa tànk maa yow yow ma la xiyaam lañ jëm ah ko kon boobaa ñoom ñaar dañuy defante rek ba yegg fu ñu jëm ba yegg ca xew ba wala ba yegg fa bëgg a dem kon donc saa yu yaay waxee rek sama yaay wax saa yu yaay sama yaay wax saa yu yaay Abdou Karim wax kon ñaari yaay yooyu macha allah yal na ñuy yal na yeneen yaay yi doon ni ñoom yal na yeneen yaay mel ni ñoom yal na yeneen yaay di jur ay doom yu mel ni ah, ñoom Mollah Morgun ay doom yu mel ni ay Abdou Karim Gueye ay doom yu mel ni ay euh, euh, Guy Marius Sagna ay doom yu mel ni ay euh, ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko donc ah yaa yi góorgóorlu leen góorgóorlu leen ay borom kër yu baax yu mun a jur ay gor mun a jur ay garmi mun a jur ñu dul jaayu mun jur ñu dul juutu mun jur yoo xam ne duñ mel ni ay Euh, ki nga xam ni mooy ay baajaxate wala ñu jur yaay yu jur ay doom yu gàccelu yu mel ni benn mati trois pomme wala ay doom yu gàccelu bu mel ni benn euh, ki nga xam ne mooy Hélène Gaye wala jur ay doom yu gàccalu yu mel ni ay Califourchon euh, wala ay doom yu gàccalu yu mel ni vraiment mooy cogg yi ay jàgg jeeg càgg ji yaay yooyu xaw ma lan la ñuy wax waaye dey ah indil nañu ci àdduna ay émergumène indil nañu ci àdduna ñu ruslu indil nañu ci àdduna ñu amul jom ñu gàccalu indil nañ ci àdduna ay tappet indil nañu ci àdduna ay markatu taat indil nañu ci àdduna ay cogg ay jàgg ay caga ay bordel donc am na yeneen yaay nag yu baax mun mënuñu koy lim juum ay yaayu Pape Alé yaayu nit doof yaayu am na yaay yu yow mi sax sa yaay yow jàmbaar la góor yàlla la yaa ngi nii taxaw xoolal di ko teewal jigéen yow yow sa yaay liggéey na donc ñi seen yaay liggéeyul xam nañ seen bopp bu ñu xoolee rek dañ xam ni <laughs> ah ay yaay oyof sel lañ yor moo taxit seen doom yi oyof bopp moo taxit càgg bu ñëw yóbbaale leen jàgg bu ñëw yóbbaale leen <laughs> ay cagarañ rek yuy tàmbaambaalu donc ñi ngi gërëm ñëpp di leen sant tey la woon opération rëbb dëmm j'espère bien que vous avez été vraiment euh, content de ce qui s'est passé ak euh, li nga xam ni wax nañ leen ko di leen wax ni euh, ñi ngi ñëwaat te yàlla ka yi dañuy ak ñoo mën a woote chaque jour ma wax ko nee naa leen duma leen jël du leen jël sama bopp bi daa fees munu ma man munu ma di liggéey di gor di yatt di rey sama bopp bëgg cee boole ah, <laughs> sénégalais yi nag ñoo ñooy commencé jugé ñii ne ne yaari mati mati trois pommes yi nëpp ñee ne yaayu yërim sec deux liggéeyut waaw yooyu moom yéen a yéen xam ngeen ñu seen yaayu liggéey ñu seen yaayu liggéeyut ñi ñi ñu bëgg gar gor ñu bëgg a jënd eh, ñu koromp ñu bañ ñe bañ ñan yéen xam ngeen seen yaay yi ñu liggéey lañ macha allah voilà kon nag comme ni ñu koy waxee man nee naa leen en tout cas en tout maa dem nee naa leen bu ma ragalal dara bu leen ma tiital dara man nee naa leen je suis très bien sécurisé c'est l'homme qui a peur sinon y a rien ba leen gisee ma toog fi di rayante yéen yéen newul en sécurité yéen yéen a ñu ay bandi jiite yéen yéen la ay caga jiite yéen la ay wuyu jiite yéen la ay criminel jiite yéen la ay sàcc jiite yéen ay assassin jiite man fi ma nekk nii sàcc jiite wu ma criminel jiitewu assassin jiitewu donc y'en yéen a ci en danger bayi len dima ma bayi len dima calculer man yeen lay titel motax may bayi sama temps tok fini di wax ba sama caani pour y'en. man je suis très bien sécurisé je suis très très très bien sécurisé je vous le dis je je vous dis pas bien je suis super bien sécurisé super bien sécurisé encore une fois tëdd leen nalaw nguur mënuluma dara papay nguur mënuluma ma dara maamu nguur nguru dara benn nguuru Sénégal nit mënuluma dara benn nguuru nit mënuluma dara voilà c'est très clair je suis très euh, euh, mature et très cervelé doomu aadama laa waxoon foo yaakaar ni mën nga ma fa jaar ma fat nit boo xam ne quatre pour cent de mon temps je l'utilise

démb démb de te man man lu may def yéen a duñu xam ne ñoom sax dañuy xam parce que ñi leen jege sax dama leen di wax ñi leen jege dama leen di wax fu ma ne démb démb démb démb démb maa ngi woon à la police démb démb démb man dama comme gars yi non moo laa bul wax damay wax dama ne maa ngi Canada maa ngi Montréal dama ne ma maamu Macky Sall mënuma fee jëlee bàjjanu Macky Sall mënuma fi jëlee nijaayu Macky Sall mënuma fi jëlee 17 millions de sénégalais plus Macky Sall mënuñu ma fi jëlee lolu leer na te je suis très bien sécurisé ku bëgg ñëw dé fi ñoo jéem songu mo la man de kenn songu ma maa ngi dugg ba légui ci métro yi di dox fuma neex di dem fuma neex demb rek man sax sax sa yu amé dama yobbu rapport demb demb demb ma ngi won ci bureau yi ya, yobbu na rapport rapport yobbu naa ko man parce que ñom ñi ngi may surveiller le gouvernement canadien mi ngi may bàyyi xel je suis ben nit bo xamni vulnérable en danger tout est noté donc j'aime bien les menaces de mort j'aime bien les les appels de meurtre yi nga que def chaque semaine mu le gouvernement canadien les rapports les vidéos les audios les lu nga rapports, rapport menaces par semaine très sincèrement donc ñoom plus menaces de nous nous ñu au sérieux nous ils ont devant eux kenn ku ñuy bëgg a rey kenn ku ñuy woote pour rey ko pour daggate ko pour yóbbu ay commando donc démb li ma yóbboon mooy menace bi nga xam ne journaliste boobu moo ko def ne dañoo war a yóbbu commando dañ ko war a rey dañ ko war a démb te kenn ku ne ci état ba ba ma wooyee tamit foofu laa ko ma ne ko maa ngi police dama doon indi euh, mon dernier rapport par rapport ak menace yi ma am donc chaque semaine saa ma amee menace dinaa ko dagg sama gars yi daggal ma ko bien monté mu yóbbul ko le gouvernement canadien tagal leen ko ne leen bii mooy dernier bi ñëw bii mooy dernier menace bi ñu nee nañ sax benn journaliste la boo xam nee na nañ yóbbu commando mu ma mu rey ma appel au meurtre la et cetera et cetera donc alhamdulilah nekk leen ci yéen dee leen menacé dee leen nangam rek ma ci gën a am poñ gën ci gën a toog di gën a di ci gën a defaru ñi ñi ma ci gën a protégé parce que fii dëkku droit la dëkku loi la te ñoom nee nañ ma bu la am ku la xool xool waxuñu ma de ku la xool te xooli neexul wala xooli suspect wooteel ci numéro yi nu mu gën a gaawee loolu la gouvernement canadien moo ma ko jox en tant que ma nekk benn nit bu vulnérable bu ñuy menacé de mort bu ñu war a rey bu ñu war a daggate bu ñu war a yónnee ay commando donc ñoom ba ñu duggee ba mu ma yóbbee hôtel def naa fa 15 jours hôtel boobu dañ ma faa toogloo en attendant ñu def seen enquête xool est-ce qu'il y a danger donc ñàkk danger boobu moo tax ñu ne ma mun nga ñibbi sa kër mais bu la amee ku xool yow moo xool boo xam ni xoolu suspect wooteel ci numéro yi trois numéro yu yomb yoo xam bu ñu defee daar daar police bi dina def réplique daar daar taxaw fa donc man maa ngi fii ci Canada di cakkas bin bin cakkas cakkas bin bin am sécurité nekk ci jàmm te dama ne ku xool xool bu ma neexut xool bu ma neexut ma woo ci benn numéro léegi nga gis dans moins de deux minutes police taxaw ñu door lay mënat mané ki xol na ma xol bo xamni daf ma néna dafa am intention attaquer ma war ray ma mané ne la moo ma leen je suis en sécurité à 200%. le gouvernement canadien jël lañ jël lañ ma en charge jël lañ ma en charge sama sécurité physique jël lañ ma en charge donc man yeen lay jaxlé yeen lay tiitalal mais man fi ma toll ni ak fi ma taxaw ni dama né tout le gouvernement de Macky Sall mënuñu ma bouger lo, mënuñu ma bougé lo parce que fi ma ne maa ngi ci jamm ma ngi ci salam ma ngi cool bañ defee sen enquête yépp gis nañ ni lepp Sénégal la yam fi ku fi ñew billahi gouvernement canadien bi nga fek ku yu dof dof tok len Sénégal di menace ku fi top fi ku fi dugg billahi di nga dé ci kasso yi ku fi dugg né moo laa ba yëngu rek yëngu xol ma ni nga war a xolé di nga dé ci kasso bi té ñi la fi indi duñ la fi jëlé lolu <laughs> mom ne vous inquiétez pas je suis super intelligent et xamna numay def ça, yu menace ñëwee chaque semaine ma dagg ko jël woté ñu jox ma rendez-vous ma ñëw indi leen bagage yi amul tok ñom un dem ba ndaysan dañ ma xam donc euh, euh, police bo mi ngi fi bu mak ça yu may chaque semaine presque xam na rek police mi ngi mais toi tu amènes toujours des chaque chaque fois c'est des menaces ma ko oui ah bon mais c'est pas sérieux ça Je ko oui <laughs> au Sénégal chaque jour que Dieu fait des des journalistes, des faux journalistes, des, des vagabonds du gouvernement me menacent tous les jours. Mais, oh, mais c'est grave, Donc, chaque semaine, rek, waaw ma yanu seen defar ko ba mu rafet monté ko ñëw ne leen ah la politique waaw ma ne am leen amaat naa ay menaces ñu ne ma toogal ma toog ñu servir ma café ne nii xool menaces yi ni euh, tout déglu audio yi nangam nangam donc luñ ci comprendre ma euh, euh, translater leen ko comprendre jilaat teg donc a euh, man daal maa ngi ci rek amoon naa fi 15 jours de relax ci hôtel relax nu ma neexee lekk ba suur di naan ba màndi ndékk bi fayu ma dara meral fan yi moom génnewaat nañ ma delloo ma sama kër donc fu nekk ni amagum naa benn bu ma amaatee yeneen ak yeneen i menaces ma dagg ko fii une semaine bu ma amaatee 4 5 menaces bu ma ko yóbbuwaatee rek dinañ ma joxaat beneen hôtel jógaat réplique tak seen réseau yi tasarawat ba en danger autour de moi donc euh, di remercier le gouvernement je remercie vraiment le gouvernement canadien de m'avoir soutenu de m'avoir protégé et vraiment d'être à euh, à mon secours et de euh, de vraiment veiller à ma sécurité physique je remercie le gouvernement canadien je ne cesserai jamais de remercier encore une fois le gouvernement canadien de m'avoir bien protégé alhamdulillah et que Dieu sauve le Canada macha allah donc euh, euh, ne vous <laughs> inquiétez pas pour ça man yel la titre, mais man amul sénégalais buy dox fi ci Canada bu ñi nga euh, réfugié ñoo ñoo ma ëpp sécurité mais à part ñi fi réfugié man ñoo ma sécurité Canada donc maa ngi njaaba njalle di dox fu neex di di sama et <laughs> vraiment Masha allah et ñoom ña ngi ma ci ubbi liy buntu di yóbbi hôtel ak di ma fayal ak di ma kii fuñ toll donc ñoom woote wuñ may jox nañ ma numéro yoo xam ne nañ ma ku la xool xoolu suspect wooteel ku la xool ku la jege mu suspect wooteel ku ku yuuxu ba nuru la ku lay attaqué wooteel donc vraiment donc maa ngi nii di dox may xaar ba kenn xool ma xoolu suspect wala kenn di ñëw na haa rek moo woo gars yi ñëw noq lay mën a dugal la ci oto bi te boobaa amul moo laa baal ma amul moo laa dimbale ma ndax boobu moom <laughs> voilà mu ñëwoon ca procès tamit vraiment damay taxaw rek ne si daf ma doon menacé daf ma songu wala daf ma nàngam kooku say bàyyi nañ la ñàkk sa yaay ñàkk la say mbokk ñàkk la nga yàgg ci kaso bi bay bëgg a dee nga xam ne fii du Sénégal fii Macky Sall jiitewu ko Macky amu fi droit Macky amu fi devoir Macky du fi dara donc ngeen jàppee noonu pour ñëpp nag dof yi nga xam ne waa kii non nationalité kan kii la yor kii nationalité nangam nangam nangam fii mun ngaa am nationalité bu mu doon fii dañoo am ay programme ak ay ay ay programme d'immigration yoo xam ni ñu bëri ñu ngi fii amoon ay nationalité française yoo xam ne dañoo ñëw fii loolu dafa am ci programme Canada bi ak foo mun a am nationalité européenne boo boo am na foo xam boo fa dugalee euh, Canada ñoom dañuy jël ñi nga xam ni dañoo jàng wala dañuy jël ñi nga xam ne dañoo dañoo am liggéey wala dañuy jël seen l'immigration choisie donc Canada ñoo ñu ubbil suñu buntu ñun ñoo remplir Canada le gouvernement canadien accepté ñu en tant que ay travailleurs qualifiés donc ñu jël ñu ñuy liggéey. donc loolu c'est normal donc pour ngeen xam ko noonu ñi ñuy jëlee ñi liggéey ñi am sañu contrat de travail noonu lañuy ñuy demee ba am euh, résident euh, euh, canadien canadien noonu la ñuy dem ba am la nationalité canadienne donc pour ñi nga xam ne dof yi nga xam ne dañuy débat ci plateau yi partout xamuñu nu mu demee dem laaj ay avocat da ngeen lam laaj ñu xam ni won leen ni bëri na ñu fi newoon France newoon ci yeneen dëkk yi di jàng di ba ba am fa seen nationalité ñoo xam ñi ngi fii ba tey am nañ fi nationalité canadienne ak bu mu mën a doon donc euh, noonu rek lañ koy defee euh, man euh, jàng na defal nañ ma formation transport logistique am naa ci ay diplôme te pourtant je suis rappeur damaa jàngaat bañ jàngal ma jàngal ma dawal jàngal ma lépp ba tey loolu moo tax may liggéey ay DHL ak di a ay Pirador di liggéey Pirator di liggéey fenen ak fenen donc loolu lepp moom mooy jang jàng li ba am ci diplôme transport logistique Canada acceptel ma ma am fi résident temporaire ba paré am sama nationalité espagnol donc xaw ma euh, ban gouvernement bi ngeen di jàpp si seen rêve ne am na doole boo xam ni mun na ñëw jël benn Jean Pierre bu espagnol gouvernement sénégalais ñëw récupérer ab tubaab bu tudd Jean Pierre ñëw jugé ko au Sénégal loolu xool leen ko noonu boo leen ko xoolee noonu rek day yomb ci yéen parce que benn Mouhamadou Niass espagnol un gouvernement sénégalais dem ko au Canada bi bi ko accepté couvrir ko ñu récupérer ko foofu jox ko Sénégalais yi loolu ku la ko wax xam ngeen ne amul bopp amul bopp kooku wax naa leen ko dama ne bu doon loolu la kon Canada dañuy toog xool fële ca ca ca espagnol Espagne rek gis benn tubaab buy dox bu tudd euh, Eh, Etienne ñu ne ko indil ñu ñun Canada dañoo soxla Etienne rek jël Etienne <laughs> donc loolu moom xaw ma ban loi la xaw ma yan euh, ay ay signature la ay ay accord la mais loolu ça n'existe nulle part nulle part ku tudd euh, Jean Pierre Etienne nangam euh, nekk tubaab bu weex tàll doon espagnol bu ñëw ci Canada ñu accepté ko ouvrir ko lépp jox koy këyit Sénégal ñoom Macky Sall ñëw jël tubaab boobu jël ko yóbbu ko Sénégal kooku man ak moom ñoo bokk lépp lan moo ñu wutale couleur kese. donc loolu amul fenn nga dalal leen seen xel xam ngeen ni du ma toog di tàggal Macky Sall di jaar ci jabaram di. di jaar fu xasaw ci ñoom te ba léegi maa ngi toog di wax la may wax donc boo leen jo boo leen nawuloon dof boo leen laajee Macky Sall dina leen wax ne kii mënuma dara ci moom dara buñ demee bay lakk kër yi mbokk xam ngeen ni ñooñu mënuñu ci man dara buñ demee ba may jaar ci dëkk bi di wax lu doy ci ñoom te ba léegi may wax kon boo leen laajoon Macky Sall rek dina leen wax ni kii moom tëna ma kii moom dëna ma ndax balaa mu maa songu dafa préparé wu derrière dafa préparé wu ba taxaw c'est un citoyen ba pare dem ci benn programme boo xam ni moo ko yóbbu euh, Canada mu dem ba am fi ay këyitam donc kii moom ëkk la dal ci kawam gaañu mu dal sa kaw nga gaañu donc man maay ëkk Macky Sall te nee naa leen yàgg naa ko défier bu leen yàgg ngeen suivre samay live depuis mois de mars maa ngi koy naan ko munoo ci man nangam maamam munoo ci man nangam maamam te Macky ba léegi moom xam na ni munul ci man nangam maamam ñu koy supporter tamit seen xol yi toj na parce que buñ sañoon fu ñu génnee waaye dañ ko war a jëli dañ ko di di di saw <laughs> di di tufli jëli dañ kii kii moom kenn mënu ko jëli kenn mënu ko jëli voilà bu fekkoon bu këyitu espagnol kese laa yor sax Espagne déjà mënu ma jël waaye tamit dama yor bu Canada dama yor bu Canada yor bu Espagne dama yor euh, résident temporaire bu Canada yor nationalité bu Espagne ma jël passeport bu Sénégal ne nii ne nii ne ko ni voilà ni te duggeewuma sénégalais dans le sang c'est sénégalais dans la lutte c'est sénégalaise dans mon cœur c'est Sénégal Personne mënu ko vous dindi Macky Sall a une nationalité américaine Maram Faisal a une nationalité américaine pour nous, wax nous non waa du sénégalais dee leen Macky mu bàyyi suñu nguur ndax am na nationalité américaine te mi ngi ko jëfandikoo mi ngi ko amee ci jabaram oyof sër oyof sër nekk na Amérique di raxas bool nekk ci restaurant Sangomar oyof sër nekk na di raxas si bool donc oyof sër moom ci programme la la demee Amérique te moom la indee jëkkëram donc Macky Sall comme sa dof yi nee nañ ku newul ku am beneen nationalité na bàyyi sa xeex bi kon génneel suñu palais ba ndax américain nga kon Marème Faye Sall génneel suñu palais ndax américain nga ndax yéen ñaar ñëpp yéen a ngi nationalité américaine kon kii nga xam ne mooy Amadou Sall jël delloo ñu suñu milliard ndax américain nga ndax yow mii Amérique nga juddoo yow Amadou Sall donc dof yooyu nga xam ne wéruñu ay kangaado lañ yeewuñu ah bu ñu demee ba man génn ma génn Sénégal ah duñ fa bàyyi maki Sall duñ fa bàyyi Marème Faye Sall duñ fa bàyyi Amadou Sall duñ fa bàyyi <laughs> ñu bëri nekk Sénégal duñ fa bàyyi ñoom Zeyna nduur bi juddoo Amérique duñ fa bàyyi nangam nangam donc programme Green Card fa la Marème Faye dugal ca la amee këyitam ba après dafa def regroupement familial indi maki sàll muy yanu ay pneu di ko dugal fi nga xam ne moom mooy conteneur pneu yi ak yore carte yooyu nga xam ne ci la ñu woowee téléphone ci cabine yi di ko di ko di ko fal si di ko dugal gars yi di ji muy def ay affaire sàcc ay affaire donc euh, seen président kon na génn suñu bale ndax <laughs> américain la c'est Marème Faye na génn suñu palais ndax américain la ki nga xam ne mooy Amadou Sall na génn suñu Sénégal ndax américain la ak autorité yi quatre-vingt-dix pour cent yëpp seen doom France lañ juddoo Amérique kon tey Sénégal buñ fa génnee kenn du fa desati <laughs> benn autorité du fa desati benn autorité autorité bu biir fii lay wasinee autorité bu biir fii lay wasinee France lay wati wasiné Amérique lay wasiné donc bu fekkee ne ñi yor yeneen nationalité <laughs> kon yaakaar naa ni yéen yéen kon Ousmane Sonko day doon président nu mu gën a gaawee ndax moom jabaram wasiné wul fii moom yaayam wasiné wul fii amul beneen nationalité kon nag ayca ayca gars yi képp ko yor double nationalité képp ku yor beneen nationalité génnal raxasal sa loxo ci Sénégal léegi Ousmane Sonko cakas-cakas bin bin dugg biir palais ndax moom yorul kayitu fii nekkul fa visa lay laaj donc kon Ousmane jël na réew ma Ousmane jël na réew ma <laughs> Ousmane jël na réew ma ndax moom doomam juddoowul fii waaye maram fii la ay doomam juddoo Macky fii la yor këyit maram fii la yor këyit ministre yi bëri quatre-vingt-dix-neuf pour cent seen doom yi fii la ñuy juddoo donc bu dee loolu la rek ay ca nañ dugg ci côté boobu noonu kon léegi Sénégal autorité jeex tàkk ñoom ñëpp ñëw fii ndax seen doom yi ñu ngi fii yor ay nationalité ministre boo wax doomam fii la juddoo wala yor naa nationalité fii donc sama gars yi ñoom dañoo jommi amatuñ possibilité jaaxle nañ paniqué wu nañ donc ñu déglu une dernière fois audio Adji Sarr et puis ñu dem tëddi ba suba ak jàmm one love en attendant ma xel sama caay peace waxee ñu ñëw envers toi ils vont refuser nañ bañ. dañuy bañ xam nañ yow yaay kañ xam naa loolu yaay kañ. yooyu ba léegi nag. xam nañ ne si euh, ñuy féete ak man rek da nga am si ñoom. merci beaucoup. ñi nekk man yëpp dañoo am influence si léegi nag loolu la ñuy bañ parce que boobaa seen ji dafay yàqu léegi nag xam nga lan nga mën a def taxawal oole na leen gis ngeen man samay mbokk dañoo sonn damaa bëgg a tabaxal samay mbokk jox leen ci loo ne ñii. yëngatu ci sama papa ak sama. dañuy bëgg di wax non xaaral ba li jeex xaaral ba li jeex. loolu nag mooy solution boobu kese moo moo li ma la wax noonu kese moo fi def. solution dañ lay bëgg di wax non xaaral ba mu jeex instant bi pas donner de l'argent je sais pas parce que loolu lañ lay wax man soo ko faalee réaction bi nga léegi de mais li wax rek moo fi des. waaw xam nga nag loolu ñu lay xaaral maa wax wallahi lazim di nga toog ne ay suma yëgoon wallahi lazim mais pour l'instant damay toog xool su ma gisee benn je sais pas studio ba dem na leen après mais nag sama gars de laaj maa ngi nekk di jënte loolu je sais pas je sais pas ah bon mu ngi noonu mu ngi noonu doy na waar mais nag garaaw yow yaa ngi leen bilig ah yaa xam lu la arrangé ak lu la arrangé wut waaye man de dama bëggoon. le fait tu sais le fait d'être rek sinon vous plaît pas su ma leen woowoon tey ne leen dama bëgg ngeen defar suñu waa kër bi dañuy wax ne on peut pas faire ça maintenant surtout ñii ñuy wax ay waxu complot complot loolu lañ lay wax su ma leen waxoon ne tamit dem leen wax ak suñu sëriñ suñu kër bu feneen duñ ñëw parce que xam nañ am nga influence bi duñ ñëw. duñ ñëw duñ ñëw waaye léegi. duñ ñëw yow yow léegi toogal seetaan ma. mais aji fii bëriwul français yi mu fi def de ah. waxee ñëw envers toi ils vont refuser nañ bañ. dañuy bañ xam nañ yow yaay kañ xam naa loolu dañuy bañ xam nañ yow yaa kañ. yaay bañ léegi nag xam nañ ne si ñi faut fekk ak man rek da nga am influence si ñoom. merci beaucoup. ñi nekk ak man it dañoo am influence si ñoom. léegi nag loolu la ñuy bañ parce que boobaa seen biir dafay yàqu léegi nag xam nga lan nga mën a def taxawal oo leen na leen gis ngeen. man samay mbokk dañoo sonn dama bëgg a tabaxal samay mbokk jox leen ci loo xam ne ñii ngatu sama papa ak sama. ci di wax non xaaral ba li jeex xaaral ba li jeex. loolu nag mooy solution boobu kese moo moo li ma la wax noonu kese moo fi des. soo sinon dañ lay bëgg wax non xaaral ba mu jeex instant bi on de l'argent je sais pas parce que loolu lañ lay bëgg di wax man soo ko xaaree réaction bi nga nekk mais li ma la fi wax rek moo fi waaw xam nga nag loolu ñu lay xaara xaara xaara danañ la xaar loolu mais lii ma la wax denc ko ëllëg wallahi lazim di nga toog ne ay suma yëgoon wallahi lazim. mais mais pour l'instant damay ma gisee benn je sais pas studio ba dem na après mais nag sama gàll laa ko. maa ngi nekk di jël te loolu je ne sais pas man ñu ngi noonu bi mais nag garaaw yow xam lu la arrangé ak lu la arrangé wul waaye man de dama bëggoon. lu fekk tu sais lu fekk d'être rek sinon mu plaît pas su ma leen woowoon tey ne leen dama bëgg ngeen defar suma waa kër bi dañuy wax ne on peut pas faire ça maintenant surtout ñu ngi wax ay waxu complot complot loolu lañ lay wax su ma leen waxoon ne tamit daf leen wax ak suñu Türkiye böyle dunya olması kabul edilmiyor. En Fransa böyle dunya. Dunya. Dunya. waaw gars yi pour gars yi rek gars yi naan Mollah dafa fashion you know yeah, that's right that's right <laughs> yeah man <laughs> yeah saa yu ñu live rek am ñu ñu ñi ñaan chemise ñi ñaan t-shirt ñi ñaan xam nga ay lunette ñi ñaan casquette ñi xam nga jean bi tamit fashion ah waaw mooy wan leen ko ngeen gis cin bi tamit ma gars yi <laughs> borom borom ku liggéey yor ah bokk kuy waxandu de ku liggéey yor bokk la kuy waxantu non waaye yow mais yow yow mais yow lan mooy sa problème yow yow taxawel nii taxawel nii taxawel nii taxawel ngeen jiin bi ah ngeen jiin bi ah yeah jiin baa ngi nii you know <laughs> fashion victime ah fashion mais ñun du ñuy victime fashion ah dañ ko yor rek mën ko di ko def ah. dañ ko mën ko di def xam nga réew bu cërtiku yor ko mën ko di ko def waaw yor ko rek mën ko di ko def yoo chaque jour te lu ñu sol duñ ko solaat de c'est lu leen loolu booy laay duñ sol solaat ko duñ ko sol solaat fu ne ni bu ñuy paree maye ko bu ñuy paree sànni ko Sénégal nga gis benn booy bu la romb sol chemise bi lu ma sol du ma ko solaat lu ma sol fii ba deux mille vingt quatre lu ma sol du ma ko solaat te lu ma sol moom pare yónnee ko Sénégal nga gis benn booy bu ko sol t-shirt bi fu ne di nga gis benn booy bu ko xool leen jean bi xàmmee leen ko booy bu la romb gis nga fashion bi fashion mode you know gis ngeen donc yii tamit dama koy jël xam nga joxe ko donc lu sol duñ ko solaat <laughs> you know yee man kuy dóore mën kuy saaga kuy kuy mën kuy dóore maan kon mi ngi noonu <laughs> namul dara la kii namul dara ak a réew lépp la yor lépp namul dara <laughs> te du maye saala yaay ndeer saala yaay ndeer du ko maye ak ak bu certigu te wax nañ leen ko ah. you know voilà <laughs> ah baraada bi ah non grawal booy man maay ataaya maay jox sama bopp xam nga man maay ataaya man maay ataaya man maay xelil sam bopp man maay naan loolu yomb na ataaya benn nit la togg benn nit la bu neexee baax na bu neexul parce que man man la maa koy ataaya maakoy koy togg maa koy naan maa maa koy sirote donc normal la maa koy sirote goutte par goutte you know voilà après lekk ba suur yooyu sama chimam Hollywood you know waaw loolu la

c'est entre nous damay plané di fo et tout ça quoi na gars na ñenn ñu soxor ñi bàyyi exploiter situation man maa gën a humble nem sénégalais boo gis man Baay Faal laa ab dof laa sa dara safuma lu ma yor bokk ak jaam yi ne cherchez pas des poux mon frère bul soxor ñëpp xam na ni live bi pare na damay foog yéen xam nga play reetaan loo leen bégloo leen happy play some comédien comédien xam nga ting just di leen reetaan la loolu kese la il faut être pas être méchant méchant ne rien à foutre man yëpp safuma dama koy def pour bégloo gars yi reetaanloo gars yi gars yi di participer xam nga parce que bi jeex na le sérieux jeex na loolu kese la bàyyi leen di bëgg seen xol yi di bon ngi ñenn ñi ñu moo la biir ëmbal waaye kat a foog kan moo ëmbalul fii ñun ñoo gën a ëmbul kuy ëmbul ñu dañuy wàcc su gars di dox suñu kaw ëmbul weesuwul ngay ngay reyante ngir sa askan ëmbul weesuwul ngay tayle sa bakkan ngir sa askan ëmbul weesuwul ngay jaay sa dund ngir sa askan ëmbul weesuwul ngay dem ba nga xam fu ñu toll ñu ngi lay menacé ngir sa askan kooku wees wu ko donc man bu bu ñu wax ëmbul man maay man maay monument wu ëmbulness parce que dama sama adduna laa tayle ngir sama askan bu dem bay taal sama kër famille kooku ëmbul weesuwu ko on jour entre nous nañ bàyyi soxor nañ bàyyi iñaan nañ bàyyi iñañiti mais bu dee ëmbul ak patriotisme ci man lay fekk baax kooku leer na donc damay play ak nit yi chaque jour gaa lañu ba dañuy gis ay play soxor daggate waaw di yóbbu ay nangam man ma toog fii di foo non voilà eh booy kañet booy gaa yi tàgg yóbbu bàyyi leen soxor loolu mooy problème mu si yenn sénégalais dañ soxor ñu na même booy foo sax day day metti seen xol yi quoi ku gën a ëmbul Mollah est-ce que xam nga moolaa man moolaa ñu bëri dañuy wax ci moom xamuñu ko de ñu quatre-vingt-dix pour cent yoo xam gars yi am na ñu am intuition xam Mollah mais quatre-vingt-dix pour cent xamuñu Mollah quatre-vingt-dix moo tax ma jommal leen quatre-vingt-dix pour cent xamuñu Mollah dañuy waxantu nii rek dañuy play ñun suñu biir meen you know di foo di kaf di ree fii c'est pas méchant yeah wu amba maki let's go waay wu amba ñu soxor amba ñu bon soxor rek lañ def

Macky Sall laay ñaawal quoi. booy bi dafa réew de Macky Sall laay kaañoo. APR insolent wax ji ñaaw bi di ko solal du bëri Latif Doudou jaay ngorom Souleymane Jules Diop moo mun a ware Amsatou Sidibé moo mun a wure règlement code yi daw damalaaf ministre Mara Mimi Touré président xëy doon kaña xëy yi daaxe di ko université léegi di jaay dikk balaa weer bi dee plan sénégalais amel temps plan sénégalais amel temps grand sac suñu argent plan jaaxle yi bëri temps Woo!

la ñaaw lañ xaajala dajale falla su mi nga sa tuway oui ou non référendum jam jàmm ñu wara sam sa kaaraange xagn la ndox dor la bal ak som baax tëf Babacar Ngom yaag say jëf ba biir ba mel dellal li nga ameel ba nee nga laay ña ngay nga laay ña ngay misère ña ngay nga laay ña ngay misère woo ña ngay nga laay cey nee nga laay ña ngay nga laay woo ña

nengala nengala nengai gala nengala ôi nengala a nengala cái nengala nengala nengala nengai bisa nengai gala chơi bao kangam kangam philazo nengai gala nengai bisa nengai gala nengai bisa akasa akasa yakum Nilaibiza. Nilagala. Nilaibiza. Peace and love, guys. I'm out.